kooku nee na Touba la jógee. Mhm. waaw laaj naa ko ndax daa horaire nee na ma Touba la jóge ku ñuy wax Saam boo ko gisee nag euh, lu ñuy wax euh, demi maire waaw demi maire la boo xamante ni nee na Touba la jóge ñëw euh, ngir gunge ki nga xamante ni mooy Ousmane Sonko mu jógee cité Keur Gorgui dem ba fi nga xamante ni moom mooy tribunal bu Ndakaaru li ñuy gën a dem rek borom moto yi borom moto yi moom ñu ngi seen seen li ngi gën a yokku. Salif ñu mayaat Abdou Diouf euh, mi tàllal loxo lu xew. waaw li xew Babacar mooy euh, mujj nañoo génn dem ba ci biti fi nga xam ne foofu la ay partisans Sonko yu bare bare bare dajaloo euh, ci wetu garage bi noonu boo génnee garage Lat bi ba mel ni ci dem tribunal foofu nag lañu def ay barrière waaye partisans yi ñoo foofu am na ci kenn koo xam ne sax moom daanaka nee nañu moom Italie la lay dund. waaye bi mu ñëwee ba fii euh, dafa jàpp ne daal démocratie bu Sénégal dañ ko war a aar te ni ñu koy aaree bokk na ci ñëpp ñi nga xam ne dañoo waroo gis-gis ak euh, ñi fi nekk ñu mën leen jox seen chance ñoom tamit. est-ce que mën nañ ko dégg mën nañ ko euh, dégg. waaw moom ci boppam moom laa bëgg parce que dafay négocier ak policier bi jamono ji parce que policier bi vraiment diplomatie bu mag a mag a mag la àndal ngir disperser leen. ci loolu la ñu nekk ni maa ngi ak moom di waa ji yaa ngi en direct ci ci ci RFM tey jii nga xëy ñëw fii nga ne yow sax yow dundoo mi bitim réew ngay dund. non moi je viens en Italie je l'ai dit mais aujourd'hui le problème c'est pas c'est pas nous et les de l'ordre on est politiciens qui volent des milliers d'hectares qui clôturent des milliers d'hectares en privant leur en privant leur en privant leur de job et aujourd'hui c'est le même système qui les qui les défend et c'est ça qui m'a fait mal moi j'ai laissé ma famille je vis en Europe je vis pas ici mais ce que je vois là c'est mais yéen xam ngeen ne mais yéen yéen xam ngeen ne waroo leen rassembler wu police gis naa ñuy ñëw di leen jéem a di leen jéem a raisonner naka ngeen gisee euh, en tout cas situation bi. non c'est eux qui nous poussent à se rassembler on est on est pas dans une dictature on la démocratie ça s'arrache nos parents ont donné leur sang et leur plume pour avoir une, une le chef de l'État son papa était gardien d'école sa maman vendeuse de de de, de, C'est là, c'est là, c'est l'État qui a donné cette opportunité-là. Il faut qu'il nous donne cette opportunité, nous aussi. Je m'excuse. tàmbali nañ ma wër Babacar euh, ku nekk di wax euh, naka la ñuy def ba am démocratie ci réew am na ñoo xam ne ñu ngi wax sama ginnaaw ne démocratie dañu koy foqati duñu ko duñu ko waxtaanee dañu koy foqati ñoom nag ñu ngi ni tàmbalee rassemblé wu damay ragal nag euh, su yàggee mu xaw a jur jaxasoo ndax ñi nga xam ne ñoom ñooy policiers yi ànd nañu ak diplomates yi jéem leen euh, euh, génne ci bërëb bi nga xam ne foo lañ nekk waaye bi ñu replié wu ñoom tamit dañoo dajalewaat fii nga xam ne moom moo di soo génnee ci euh, garage Lat Dior bi bay wàcc ci mbartal boobu jëm ci wàllu yi nga xam ne moom moo di tribunal bu Ndakaaru hmm. foofu lañ nekk rassemblé wu nit ñi bari nañu macha allah ci fi nga xam ne moom moo di ci buntu garage bi jamono ji nag euh, ñu ngi xool ba xam fan lay yëf yi di mujjee ndax police li ñuy gën di dem ñuy gën di yóbbuwaat seen barrage yi nga xam ne moom moo ci kaw a euh, soriwaat nit mm. euh, nga xam ne moom mooy dégg nga nee na du tee ñu taxaw nee na loolu ñu taxaw ah, Abdou li ma bëgg a xam mooy police lu lu ñuy bañ ñu jege tribunal bi wala ñu rassemblé ñaar yi ndax benn bi. li nga mhm. njëkk wax moo di dafa am ay risques yoo xam ne moom moo ci nekk. Mhm. moo tax ñu bëgg nit ñi gën a sori waaye beneen bi mooy su ñu leen génnee itam rassemblement xam nga ne dañu nekk ci période boo xam ne dañu ko aaye ci réew mi. Mhm. terewul nag euh, nit ñi ñu ngi rassemblé wu. ñu ngi fi euh, nga xam ne moom moo di euh, ah dégg nga yaa ngi dégg loolu nee nañ nañ leen dem jëli convoi parce que xam naa ñu ngi déglu Salif Sow. Salif Sow mu ngi ci yoon bi di ñëw fii ci tribunal léegi léegi il faut il faut ma ma xam fan la saalif tollu maa ngi maa ngi ñëwaat ci yow léegi Salif. Babacar. Euh, fan nga toll ak Sonko. waaw maa ngi toll ak euh, benn école euh, bu tudd uni pro su ma jumul maanaam daal. Mhm. jege naa PCC yi. jege jege naa PCC yi. ñu ngi romb gendarmerie nga xamante ni ñu ngi tax ba dëggal di leen tàccu. ñu ngay tooñanteeg gendarmerie yi. léegi nag gaa yi sànq ba léegi. woy bu ñuy woy Salif Salif. ban PCC yi bi nekk Mermoz. PCCI PCCI PCCI. ban la mooy bi nekk Mermoz. PCCI euh, man de benn waaj xam mooy bi nga xamante ni moo nekkee wetu euh, nga xam ne bu ko jubalee day jëm fële bi ñuy wax. Euh, kii xamul Dakar géejawaay géejawaay la dëkk. Ah, xamul xam mooy bi jël bi jël corniche bi nga xam ne. non PCCI moom Fall miin naa ko. mais fa yow Salif da ngaa sori tribunal da ngeen a sori tribunal sax fi mu nekk nii. Ah? parce que bu dee PCCI la côté Mermoz la. waaw ñu ngi côté Mermoz PCCI. Salif sori ngeen tribunal de. déet waxuma tribunal de. Hmm? non dafa ni ngeen maanaam yëg seegu leen di nga doon faral di jëndee eh, pain yi rek mooy jamono yooya. Hmm. léegi mu ni euh, li mu bëgg a wax bëgg wax mooy euh, euh, di ngeen yéex ci yoon bi daal maanaam. waaw dina yéex dina yéex mooy li ma doon wax sànq. bu hmm. ni moom lañ ko nar a jàppee di raam nii xëy na sax fii wala boog euh, a compliqué. parce que fi mu nekk nii ñu bari ci Sénégal yi li ñu bëgg a xam mooy. Euh, mm-hmm. laaju Babacar Fall ba géographiquement parlant fan ngeen situé wu. dégg nga laaj Assane. Mouhamed Mouhamed la Mouhamed. waaw Mouhamed Ndiaye. waaw ma ne li ñu bëgg a xam mooy saa si tembe tembe fan la convoi Ousmane Sonko toll. fan fan la cortège bi toll. waaw. waaw cortège bi ñu ngi toll fii nga xamante ni. xam nga xam nga xam nga. E, e, kii école ba du ñu tuddati sax IMS ISM xam nga ISM. xam naa ko waaw. ISM xam nga ko. waaw am na bu ma ci xam. waaw tey ñu ngi tolloo tali bi nga xamante ni daanaka moo jëm ISM bu fekkente yaa ngi nii ci biir euh, Mermoz bi. Mhm. tali bi nga xamante ni moom moo jàmm euh, ISM léegi oto bi bu ñëwee ba tali bi nga xamante ni moo jëm ISM. njorte njortul ne dañuy jubal jëm fi nga xamante ni moom mooy corniche bi. mais yow mi nga xamante ni yor nga yor nga oto fi toll nii oto la deux lay jërëjëf. IAM kon la ñu tollool nii. may wax. IAM. Babacar bu ma la nee bu ma euh, la kay. Ah? su ma la nee miinoo kay waxantuwuma. waaw mu ngi noonu. léegi comme IAM la toll li leer ba leer mooy dafay romb kër Pierre Pierre Goudiaby Atepa euh, romb foofee ñuy tàggatoo suma ma juumul club euh, olympique club après jël corniche bi wutali tirbinaalu Ndakaaru. waaw daal lay romb noonu. Mhm, effectivement. loolu mooy yoon bi nga xamante ni daal. jàpp mais ba léegi ba léegi ba léegi jotagul ci corniche bi. déet ba léegi jotagul ci corniche bi fi mu toll des na bu ñëwee ba IAM mu ngi nii IAM. fi mu nii war naa jubal ba ci rond point B nga xamante ni moom la ñuy wax route de Wakaam mooy beneen rond point B nga xam ne boo jëlee sa droite jubal. Mhm. yaa ngi dem bu la neexee ba kër Macky Sall boo jëlee sa sa yaa ngi dem ba awaat buntu université mais rond point ba nag xamaguñ lu fa am waaye comme bu nekkente ne ni ñuy def ci yoon yi weesu la ñuy def. mën naa mën naa Salif mën naa bañ a jël corniche bi ndax foofu itam mën na faa joxe wuutali Cheikh Anta Diop. waaw parce que Cheikh Anta Diop daa nii ébbeekoo na le. Mhm. mais comme que buntam bu mag bi nee la gën a nekkee moo tax léegi daal ñu ngi nii xam naa ne bu ñu ekkee daal ba ci rond point ba feenee dinañ ci am lu leer li wér daal mooy ne Cheikh Anta Diop moom kenn mënu koo tekki. waaw Sonko mënu koo tekki bu amee bu amee biir. Euh, ab ab avenue Cheikh Anta Diop sax lay wax euh, yoon hôpital Fann bi bon bu bu bu bu doxee ci Mermoz bi ci rond point bi mën nañoo jël gauche rek wutali euh, avenue Cheikh Anta lu mën a nekk lay tam waaw. jaar buntu fan. mi ngi noonu xëy na mu lijjanti mu lijjanti fan la nekk mais man Babacar dafa am dafa am ñaari ñaari problème yu ma ci euh, benn mooy dégg nga Abdou Diouf li mu wax mu ne ñi nga xamante ne ji dañu ñëw pour di jàppale si Sonko mayuñu leen ñu jege tribunal bi déjà takkateer yi loolu la ñu bañ mais également fa leen pousse dañu faa daje rassemblement bi ñuy bañ ci réew mi am na euh, ah, dégg nga Salif Sow boobu ba léegi cortège bi ma koy soog a dégg mu ne bi ñuy départ juróomi oto la ñu woon moom bi ma bëgg bokkoon sax ci la ci léegi am nañu sax problème mu atteindre corniche bi wala jël yoon wi war a jaar pour dem directement mu mel ne bu fekkente ne ay nit ñooy jóg pour jàppale Sonko wala di ko won ko seenu jàppandal euh, damay ragal ñu yokk coow li ndax ku ñu convoqué déjà 9 léegi tey 10h jot yeggagoo fañ la convoqué ci ñi la tëyee ne ñoom euh, dañu maanaam dañu fare ak yow damay ragal saafara saafara jur jàngoro moo tax ak lu mu ci mën di doon ce qui mooy 9 bi ñu ko convoqué moom ngir mu yegg tribunal 9h loolu moom faat na mënatu

waaw ba léegi dañoo taxawaat waaye boo déggee riir yi daa fekk ne moom Ousmane Sonko tamit bu fekkente ni ah, oto bi daa daw daw ba am embouteillage ba mu taxaw ba yëf yi taxaw bu ko mbooloo mi wëree ba wër ko day génne mu daal loxo léegi léegi nii loolu la doon def ba tax ah, coow li taxoon koo bari ah, ba tax na coow taxoon koo bari waaw chef de protocole wàccaat na léegi nag euh, ma ngay xoolaat euh, ah fii dañ euh, fii dañ koo baare mooy rond point bi jëm Wakaam bi. waaw. rond point boobu dañ koo baare teg fa ay gendarme mooy ci lim boo xamante ni gisaguñ ko ba bañu tàmbali ba léegi. Hmm. fii nag nee nañu oto bi day jàppe aw ci ñuy wax. buntu IAM. waaw. oto bi ñu nee la a jàddee waaye nag fi mu toll nii dañuy bañ ñoom gendarme yi. Ousmane Sonko nag Salif Salif déggatuñ la il faut que téléphone bi nga jooyanti ko euh, euh, xaw nu muy demee waaye digg bi dafa dese leer. léegi gendarmerie ñu ngi tamit di di ñëw. gendarmerie ñu ngi progressé di ñëw. maa ngi ñuy jàkkaarloog gendarmerie yi ñu yore seen i euh, mbooloo lañ nag gendarmerie yi may seen. war nañu ma daanaka trent ba ba cinquante. buñ ko ëppul sax. Euh, oto gendarmerie aussi ñu ngi ne la ci ginnaaw ñoom tamit di jël position. oto gendarme yi maa ngi leen di séen dañoo wanoon mbooloo mi kanam waaye fi ñu toll nii gis naa leen ñu def euh, demi tour wan mbooloo mi ginnaaw kon mu mel ne bunt yi buñ ko ubbee moom ci dox rek ci biir ngay tàbbi. mbooloo mi topp Sonko dañu bëri gendarme yi mu doon na benn instant boo xamante ni bañ sàmbalee dox ba léegi ñu ngi soog a gis euh, affaire bi mu xaw a toog tàngee nii. ñi nga ñoom ñooy gendarmerie ñu ngi nee taxaw yore seen i bouclier nga xamante ni ñooy suñuy Ousmane Sonko te ñoom ñu ngi nee taxaw ci seen i loxo def benn croix boo xamante ni euh, waaye manifesté yi léeg-léeg dañ koy faral di def. Mhm. ñoo ba ci kanamu gendarmerie yëkkati seen i loxo euh, gendarmerie ñu ngi ne ñoom itam euh, téye li nga xamante ni moom mooy seen i ñu ngi jàkkaarloo ñii di sànni ay baat. ñi nga xamante ni ñooy man yi manifesté yi léegi daal buntu IAM bi la ñu bëgg cortège bi jaar waaye suñ toll nii ñi nga xamante ni ñoom ñooy gendarmerie ñoo baare fi yore protocole bi moo ngi dem di négocier kii yore protocole bi ak ñii yore sécurité bi ñoo dem di wax ak gendarmerie yi waaye gendarmerie yi bougé wuñu ñu ngi nag taxaw di di xool ndaxte ñoom yoon bi leen tracel ñoom yoon boobu lañ bëggul waaye bi la yoon euh, ñu xool euh, naka la yëf yi di mujjee. Uh-huh. ci bi nga xamante ni moo yore protocole ba mu ngi dem di rendre compte bi nga xamante ni mooy suñu Pastef di Ousmane Sonko nekk nga xamante ni moo nekk ci suñu ginnaaw woto. ñu ne di suivre ci bi di xool euh, ci bi lan moom ñu na boppa ci biir oto ki nga xamante ni moom mooy Ousmane tuuti yow. di dayanteeg Ousmane Sonko ñu euh, lan la koy jëlee ndaxte du Ousmane Sonko rek a nekk ci oto bi ma fàttali leen ko mooy ba mën daal di koor waaye ki nga xamante ni tamit dafay xelal ci wàllum yoon. donc euh, ñoom ñett ñoom ñu ci yore protocole Ousmane Sonko ak ci euh, guddi ak nga xamante ni moom mooy Ousmane Sonko ki ngay xelal ci wàllum yoon ñu ngi noonu di waxtaan. <laughs> waaye gendarmerie tamit euh, ba léegi ñu ngi taxaw ku ñu taxawoon. léegi ñoom lan euh, euh, Salif jamono suñu boppee tamit ñu ngi taxaw. Salif. waaw léegi ñoom lan lañu bëgg dafa am fu ñu bëgg a jaar gendarme yi bañ wala nit ñi ñoo leen mayul fu ñu mën a jaar lu xew lan moo waral blocage bi. waaw wax naa ko sànq waxati ko si ko mooy ne gendarme yi avocat ngi nii wàccaan na di demaat di waxaat ak ñoom. fii yoon mooy ñetteel bi la yoon mu xamet mooy ñu ngi toog jàpp rajo bi bi yoon mooy ñetteel bi la yoon. Ousmane Sonko cortège bi gendarmerie di ko won ne yoon bii la war a jaay rek yoon bee. ndaxte waaw gendarmerie nag ñu ngi commencé di door ay gaz lacrymogène gendarmerie ñu ngi commencé door gaz lacrymogène sa waaye dafa nii ñu ngi door ay gaz lacrymogène xeer ya xeer ya naawoon. gendarmerie yooyu door gaz lacrymogène ñii ñu ngi sànni xeer yëpp yëpp dégg ngeen ngi noonu en direct ci cortège Ousmane Sonko bi war a wuy ji tey ji juge bi donc euh, jóge na sànq cité kër góor gi waaye ba léegi jotagul sax cornichon Ndakaaru bi bi ñu demee ba ci rond point bi foofa dégg nga Salif euh, jàppante moo fa am gendarme yi di dóor ay grenade lacrymogène Salif Salif Salif Sow xaw na compliqué parce que bi ñuy mujjee am Salif gars yi ñoo doon sànnante ay xeer di ko sànni gendarme yi sànn gendarme yi di dóor ay grenade lacrymogène ci liaison boobu la ñu mujjee am kii di Salif Sow euh, Salif Sow mu ngi ci ligne bi mais déggowul ak ñun bon nañu am nañu am yaakaar ci ne jàmm la rek euh, Salif. faut il faut que ñu ñu lijjanti ñu Salif ñu xam exactement lan lan moo xew euh, Salif Sow. Salif parce que maa ngi jot ay ay xibaar yoo xamante ne ji ñu ngi ñuy xamal ne euh, ñoom gendarme yi dañoo dañoo jot ndigalul disperser rassemblement bi ndax bi nekk buntu tribunal la wala ndax bi topp ñooñu Sonko yi la en tout cas. Euh, ay naataangooy journaliste ñooñu baax info information boobu danañ ko danañ ko gën a topp dégguma Salif doy il faut ma dégg ko Ablaye lii dalul xel de il faut ma dégg Salif Salif. allo. oui euh, dafa mel ne euh, yëf yi dafa compliqué de lu xew Salif. waaw. xëy xoolal kii yël axtandikul ah, tuuti maa ngi ñëwaat ci yow dégg nga parce que dafa mel ne. Ah. da jël grenade de. waaw Massa. léegi. Euh, euh, non non léegi Salif. xoolal xoolal euh, récupérer tuuti récupérer tuuti parce que. léegi léegi léegi mën naa récupérer mais jël leen ki yore protocole bi. anamu. am na ne mu gaañu la am na benn gaañu gaañu. gis naa ko muy muy naaj xaw ma ne exactement lan la. nekk ci kanam ñu ñëwaat. ñi ngi may wax ne préfet bi moom moo def euh, moo wax devant IAM euh, ah. que ni rassemblement bi ñi rassemblé wu bu ñu bu ñu bu ñu tasul nañu leen nañu leen nañu leen nañu leen chargé euh, bon boo ñu mënee vérifier information boobu. voilà voilà voilà mi ngi mi ngi noonu massa bu baax Salif Sow massa bu baax Abdou Diouf Abdou Diouf waaw maa ngi lay waaw yaa ngi foofu noonu buntu tribunal dégg nga fi nga xam ne fa la cortège Ousmane Sonko bi toll ak lafa fa xew euh, ay grenade lacrymogène yu ñu fa dóor ay xeer yu ñu fa sànni ñii di ñii di takk der yi loolu moom la ñu amagum comme xibaar beneen information bi mooy cortège Ousmane Sonko ba euh, buujeegul foofa maanaam ma ngi ci boori yaayam secteur Mermoz ba fa la tollu jamono ji foofu moom lu fa xew. waaw euh, lii xew ci ñoom Salif nag euh, di ay jomb jombuñu ndax booy xool. Mhm. Euh, ni ma la ko waxee sànq mooy rassemblement yi dañ koy tere waaye terewul nit ñi. ñu ngi dajaloo fii nga xam ne moom moo di ci wetu station bii nekk ci ñi xam bërëb bi boo jógee ci garage Black Dior bi di di wàcc mbartal boobu jëm si wàllu fi nga xam ne moo di pale palais de justice. ñoo ngi fa dajaloo te police xam nga ne ñoom euh, bi ñu tàmbalee ba léegi ñu ngi jéem a négocier di jéem a euh, tas yi waaye daal li ñu daal ñu ngi taxaw ba léegi am na sànq bi ngeen may euh, bàyyi ñoo xam ne dañu ne dañuy dem daje ji ak cortège bi. noonu lañ def ñi nga doon xam ne ñoom ñoo doon coow sama ginnaaw sànq nga leen di dégg ci rajo bi ñoom ñoo def groupe daal di jël corniche bi wiiri ci côté corniche bi mel ni ñi nga xam ne dañuy dem daje ji ak cortège bi. ndax ñoom nee nañu daal ñoom du ñu ay ragal te du ñu bàyyi benn yoon ñuy euh, noot ab euh, euh, kilifa goo xam ni ci wàllu démocratie la taxawee ci ci réew mi tànk boobu la taxawee te ñoom lool moo tax ko ñoom ñu dajaloo am na ci ñoo xam ne bitim réew lañ jóge nee nañ ñëw fii ngir jàppale ki nga xam ne moom moo di Ousmane Sonko dégg ngeen ko tànk ci rajo bi en direct waaye loolu moom a xaw a jaaxal mooy ñoom ñu ngi déglu RFM ñu ngi dégg Salif Sow muy wax ni cortège bi fii la toll fële la toll waaye ñoom jàpp nañu ne yéexaay bi nga xam ne cortège bi jeex na ko war na tax kon ñoom ñu jël seen i euh, ñoom ñëpp daal di wutali ci foofu ngir euh, jàppale ki nga xam ne moom moo di Ousmane Sonko loolu mooy li nga xam ne moom moo fi xewagum jamono ji leneen loo xam ne mën nañ ko fi wax aussi euh, El Hadji Mouhamed Ndiaye mhm. moo di ne ki nga xam ne fa la waaw Abdou may ma Salif mu ngi yëg waaw ñu jël waxtaan 4 véhicules 5 véhicules y' a pas de problème. s'il vous plaît. parce que non, il faut que vous le compreniez. Combien de véhicules vous voulez Il y a 4 véhicules. Les 4 véhicules sont passés, il n'y a pas de problème. Au revoir. Ici, il n'y a pas de problème. Mais demandez s'il vous plaît demandez s'il vous plaît de grâce aux gens de se disperser sinon on sera obligé de charger. Eh, xale yi moom mu leen a téye. je vous parle quoi vraiment je vous donne cinq on ne peut pas avoir de problème. allo. oui Salif. waaw dégg ngeen noonu waxtaanu préfet bi Alioune Samb ak euh, ñi nga ni ñoom ñooy euh, ak euh, ñi nga xamante ni ñoo am protocole Sonko. léegi mm-hmm. autorisé nañ leen pour ñu jàll. mais nee du mm-hmm. mu jàll mais oto. Ndeysaan. du weesu ñeenteetu tey dégg nañu préfet bi mu ne nañu wax gaa yi nañu tasaaroo lu ko moy ñoom dinañ leen dinañ leen donc Sonko finalement. dañ koy dañ koy mu jàll. Mhm. mais nee nañu bu ñu weesu ñeenti oto Mouhamed. Salif. waaw mu ngi leen jëlaat. ayca ayca kon. Euh, Salif Sow ci kanam tuuti danañ dellu ci moom ngir xam ndax euh, cortège bi fan la toll exactement dégg nga euh, noonu mu ko waxee ci ñi oto yi ànd ak Ousmane Sonko am na ci ñeenti oto yoo xamante ne jikkoon permettre nañ leen ñu jàll euh, léegi nag mu des oto yi nekk ci ginnaaw ana fan la ñuy jaar. mais également rassemblement bi nga xam ne préfet dégg nañ ko en direct mu wax ko gaa ne ko nañu nañu tas nañu fexe mbooloo mi tasaaroo lu ko may ñoom danañ leen disperser ana loolu fan lay mujjee euh, Salif Sow dinañu ko toppal euh, ndax dañuy dem seeti Abdou Diouf mi nekk foofee ci tribunal palais de justice Lat Dior Abdou juf waaw waaw dégg waaw dégg nga li nga xamante ne ji loolee la saali foo wax euh, sànq yaa ngi ne ma am na ci ay militants ay sympathisants ay soppee Ousmane Sonko yu ne ñoom euh, boo moytul dañuy dem gàttandu ji cortège bi ña nga ca lañ waxoon ba léegi. waaw am na ci ñoo am na ci ñoo xam ne ñu ngi en direct ci RFM. Mhm. ñoo xam ne ñu ngi taxaw ne ñoom bi ñu nangu li nga xam ne moom mooy xew fii tey ci Sénégal ñu koy seetaan am na ci kenn koo xam ne moom laa moom laa jàkkaarlool nii. lan moo waral tey ngeen dajaloo fii tout en sachant que euh, lii nga xam ne moo di rassemblement yi dañ ko tere. waaw sëñ bi na def maa ngi leen di nuyu di nuyu waa Sénégal yëpp nag maa ngi jógee Mbour laa jógee ñëw nag ànd ak gunge ko Sonko palais de justice tey dañoo ñëw pour dëgëral suñu démocratie moi j'ai été averti tey jii bii sa man de policier ñu taxaw barricade ñu te Sénégal ñoom xam nañu si ñun lañ bokk ñoom ñoom si ñun lañ bokk li ma li ma jaaxal li tax li bu dee dëgg rek. yàlla dëgg rek la bëgg nañu bàyyi ñu déglu ñëwuñu pour xeex ñëwuñu pour xuloo ñëwuñu pour yàq parce que suñu yàqee suñu Sénégal lañu yàq waaw ñun dañoo bëgg suñu on veut une on veut une république très forte bu ñu bëggee république bu forte nag dañu am la séparation des pouvoirs loolu mooy si ñor Ousmane Sonko nag Ousmane Sonko ne touche pas à Ousmane Sonko. on ne touchera pas un centre, on ne laissera pas laisser, on ne laissera pas Macky Sall toucher ah, ah, à Macky Sall. On ne laissera pas, on ne laissera pas. ma ne on utilisera tous les moyens ñëw ñu pour xeex dama koy waxaat ñëw ñu pour yàq ñëw ñu pour def dara dañoo ñëw pour déglu jàppale Ousmane Sonko Ousmane Sonko moo doon xeex ak ñun Ousmane Sonko li Ousmane Sonko moo fi nekkoon il est le seul opposant ñu def opposant man na ko wax waaw. du yow gis nga ne euh, bëri ngeen fii macha allah euh, dajaloo ngeen li nga xam ne moom mooy ndajaloo yi dañ koo aaye euh, gis nañu ne mesure barrière yi ñuy wax respecté woo leen ko est-ce que yaakaaroon la ragaloo leen ni loolu nekk motif pour que policiers yi aussi chargé eh, xam nga lan laa bëgg a xamal li waral lii yëpp stratégie la woon parce lii ça a été planifié xam nañ ne Sénégal fu mu toll nii Ousmane Sonko ko bëgg a jàpp da nga andi problème da nga bëgg a andi problème ñun nag dañuy ñëw on est on man ma Ousmane Sonko ma génn ci kàr bu ndox bi boo ma bu océan Atlantique jeexee rek ma bàyyi Ousmane. ëpp naa dem océan bi dañ ko soxla ndax jën yi ci nekk ak yeneen yi xéewal yi ci nekk waaye yéen eh, tey ba fan ngeen mën a dem. Ousmane Sonko ci kaso bi moo nekk na Sénégal yëpp dugg si biir kaso bi parce que wax ñu dëj la ku wax ñu dëj la loolu moo jeex Sénégal. Euh, Mohamed. oui euh, oui Abdou yaa ngi dégg coow loolu. waaw waaw nag boo ko déggee mooy mbooloo muy bari na. Mhm. waaye euh, li may ragal rek mooy. Euh, mu indi ak jaxasoo ndax yéen tamit yéen nga xam ne yéen a ñëw fi taxaw fii ragaloo leen lii yëpp doon loo xam ne dafay indi coow ndax tere nañ leen rassemblement yi. waaw man moom ay kenn kàddu rek laay wax ci côté ndajaloo yi ndajaloo yi quoi ndaxte suñ seetloo nii dajaloo bu nga am ci école yi mu ngi am ci université ñun ñi université lañ jógee soo demee ñun ñëpp dañuy dajaloo. waaw ñu ngi aussi li nga xam ne moom mooy fa li ñu leen denc noonu ñoom ñoo koy dajaloo. kon ba la ñuy tere dajaloo bi rek pour xam nga ah, ñoom ñu bëgg a def li ñu def c'est-à-dire ñun ñu def li ñu bëgg a def loolu nag aussi lañ dul nangu loolu moom bu ñu ko nangu yaa mujj xam nga fan lay dépendre mooy nañ ko auditionné bàyyi ko mu dellu këram mais su bëggee jëm leneen xoolal fii la ñuy jaar fii dañu tegg leen foofu loolu moom amul sax benn ñu dem bee ñëw loolu leer nañ pour ñëpp ngeen romb barrière yi nga xam ne ngeen romb barrière yi nga xam ne moom lañ teg auditionné comme def leen def gars yi yeneen ñëpp la ñu dellu la ñuy xaar tey xaaruñ leneen leneen ma def nag leneen lu fi am ñoom ñoo ko provoqué ñu moom pare nañ pour loolu Abdou may ma ma jëli Salif mi ngi yëglu waaw Mouhamed oui Salif waaw xam nga yëg sànq daloon na waaye léegi daal gën a tar ci lu xew dañoo xeexaat diggante farandoo Sonko yi ak gendarme yi ndaxte gendarme yi sànq ba ki yore protocole Sonko bi ñëwee wax ak moom dafa ne ko woon mun nañ ko bàyyi ba ñeenti oto romb waaye ba gaa yi demee ba yéeg ci oto yi rek la gendarmerie yi daal di changé waat ci kaw ñi nga xamante ni ñoom ñooy euh, euh, ci kaw cortège Sonko bi léegi nag taf nañu mbooloo mi daanaka maa ngi jàkkaarloog seen dragon bi ñoom gendarmerie nationale. Mhm. mu ngi nii di remonté di jëm euh, ci ful bi ci croisement bi nga xamante ni boo jegee route de Wakam ñëw ba sa droite yaayam fa la ne léegi gendarmerie ñu ngi ci angle boobu noonu taxaw. Euh, jàkkaarloog euh, ñi nga xamante ni euh, mooy yoon bi jëm ci VDN bi beneen groupe gendarme jàkkaarloog yoon bi jëm ci IAM bi ñu ngi noonu di chargé di chargé waat di di di di defaraat yëf ngir xëy na ngir ngir waat mbooloo mi ngir ñu tax waaye daal xam leen ne oto bi oto oto oto dragon gendarmerie bi moom tamit armé wu na kii nii may seen muy romb oto bi man ay grenade lacrymogène yu bari la yor. Euh, yor na ci dafa demoon ci doole mu ngi ci yor benn cinq six sept euh, yor na ci sept yoo xamante bëgg a ma ngi demaan fee ca mbooloo ma ci yorewaat euh, protocole Sonko maa ngi ko séen mu ñëwaat ne di wax ak gendarmerie ngir xëy na jéem a lijjantiwaat ba ba romb ndaxte dañ leen waxoon sànq ne am ngeen droit jaarale ñeenti oto waaye ba léegi oto yi bougé wul oto Ousmane Sonko tamit bougé moom mi ngi taxaw. Ousmane Sonko mi ngi toog euh, mu ngi ne chef protocole bi ànd nag euh, euh, gendarmerie bi di remonté di dem ci oto yi nga xamante ni ñoo nekkee ci ginnaaw oto yi waa gendarmerie nag waa GIGN la groupe bee ma gis ñu ànd ak moom ay GIGN lañ GIGN ay élite lañu ci gendarmerie nationale. ñu jéem a jege ji. Eh, Salif. dem waaw Mouhamed eh, mën mën nañoo xam li li nga xamante ne ji moo indi coow li ba tax eh, gendarme yi yëkkatiwaat grenade lacrymogène yi gars yi nekk ñoom ak ñoom. waaw léegi léegi léegi gars yi ba a sànni wax xeex. Hmm. yi ñoom. gars yi ñoom ñu ngi doon xaar. gars yi gars yi ñoom ñu ngi doon xaar. comme que da leen waxoon ñeenti hmm. yi ñoom ñu ngi doon xaar ñeenti oto yi romb. léegi bi ñeenti oto yu rombee dafa am yeneen yu ci bëggoona do euh, dolleeku. Salif. en tout cas. ñu ne lijjanti waat nañu. ma ñëw nii moom. allo. waaw Salif. waaw Mouhamed. Mhm. nag ñu ngi nii jéem a yeggaat suñu oto. Ah, bu ñu yeggoon sànq.

waaye naka gars yi di yi rek ñu léegi nag fi mu toll nii ñu ngi nii. Uh, di jël ci convoi bi waa GIGN seen bopp. Mhm. léegi fi mu ñoo jël en charge sécurité Ousmane Sonko. dañu noonu tàcc yi GIGN. Mhm. fi mu jël nañ sécurité bi en charge. ñoom léegi ñoom ñoo fas yéenee ñëw jiite convoi bi suñu oto yi nii. benn oto bu weex la. sànq ba léegi nag ba convoi bi déparé mi ngi woon ginnaaw. oto oto bu weex bi bu GIGN bi. Mhm. mais léegi oto GIGN bi benn bu weex ak benn bu ñuul ñoom ñu ngi woon ci ginnaaw ba combat bi lancé ba léegi waaye léegi fi ñu toll ñoom lañ jël affaire yi en main gis ngeen gars yi ñu ngi leen di félicité naan leen GIGN GIGN léegi ñoom ñooy ubbi gars yi topp seen ginnaaw. waaw mais mais mais Sonko du wàcc oto bu mu nekk maanaam du jugee ci otom dem ci seen oto. déet Ousmane Sonko ba léegi mu ngi ci otoom. donc ñoom dañuy jiitu après xàll yoon bi euh, bu ko defee. waaw dañuy xàll yoon bi. Mhm. ñoom dañuy yoon bi. am na am ñaari oto. am nañu ñaari oto yoo xamante ni ñu ngi jiitu léegi moom. benn bu ñuul. benn oto bu ñuul ak benn oto bi à droite dafa ñuy mot. waaw fan ngay toogee fii. danaa defal nii rek yow yaa ngi yore oto bi. loolu tax yow ma wax. allo. waaw Salif. Mouhamed. est-ce que la bàyyi nga lijjanti ba ba toog ba pare. waaw léegi léegi ne cortège bi démarré waat na léegi. Mhm. doon bañ ñu jaar. léegi cortège bi finalement jaar. cortège foofu lay jaar. Mhm. léegi ñu ngi nii di jubal foofu. léegi nag euh, xam nga dañoo tasoon nit ñi nit ñi demoon buntu yaayam. léegi ñoom wootante nañ seen biir booy ñu ngi neeri may seen ñuy daw pour wiir yi pour dem euh, toji oto bi di nga xamante ni xamal ci léegi nag finalement préfet mu ngi nii taxaw suñu wet xanaa duñ ñu gazé waat léegi nag euh, di jubal di dem euh, fi nga xamante ni moom mooy ci ci ci ci wax bi. photo wakaam bi. Mhm. ngir jéem a xool ndax bu ñu egsee foofu dañuy jël gauche wala ndax bu ñu egsee foofu dañuy jubaat loolooy laaj. loolu lañ nekk nii Salif. Euh, ma waa d' accord d' accord euh, dinañ ñëwaat ci yow ci kanam tuuti ngir xam kon euh, cortège Ousmane Sonko bi euh, fan la toll fàttali ne yéen a ngi déglu RFM rajo Futur Média en direct ci suba ba léegi ñu leen di gunge jëm ci jox leen ay xibaar yoo xam ne dafa soxal convo convocation gi nga xam ne convoqué nañ ko kii di Ousmane Sonko juge d' instruction huitième cabinet convoqué ko ngir audition jëm ci tuumay viol ak menace de mort yoo xamante ne ji mi ngi gàlle ci woon doddam moom Ousmane Sonko bàyyee ko ci benn xale bu jigéen bu ñu naan Adji Sarr euh, di liggéey ci benn salon bu tudd Suite Beauté foofu la coow li tàmbalee bu wéy ba léegi nag bari na yu ci yu ci yu fi jaar waaye tey jii ci la ñu ki nga xam ne moo di Ousmane Sonko juge d'instruction huitième cabinet moo ko convoqué convocation bi euh, neuf heures la donc dix heures sept jot na Ousmane Sonko ba léegi euh, mbooloo mi ko daar ak jafe-jafe ci wàllu yoon tax na mënagut a jote tribunal Salif Sow oto Ousmane Sonko ba léegi moom départagul mhm. léegi ndaxte ñi nga xamante ni ñoom ñoo yore sécurité Ousmane Sonko ñoom ñoo war oto bi euh, daa mel ne ñoom euh, am na leneen lu bëgg lu bokk ak euh, oto Ousmane Sonko bi daa di départ ñëw fi nga xamante ni mooy yoon bi waa GIGN yi xàlli waaw noonu daal la demee. sànq yaa ngi may wax ne ma waa GIGN ñoo war a jiitu ci convoi bi. nga wax may ne ma nga wax may ne am na ñu yor sécurité Ousmane Sonko. <laughs> Euh, ndax ndax loolu dana dana yomb a lijjanti. waaw loolu nag mooy problème bi parce que waa GIGN yi ñoom. Mhm. ba ñu dañoo xàll yi seen mbokk gendarme yi tijjil leen ngir ñu romb léegi nag ba ñu rombee ak euh, seen oto ak euh, oto presse bi léegi nag oto Ousmane Sonko moom ci boppam. Mhm. ñi nga xamante ni ñooy sécurité bopp Ousmane Sonko. daal di koy euh, bola taxawal mhm. waaw daal di koy taxawal léegi nag ñu ngi nii préfet ngi wax ak ñoom euh, sécurité Ousmane Sonko bi gendarmerie tamit ñu ngi wax ñoom pour ñu écarter su ko defee oto bi mun a romb donc euh, GIGN yi wax nañoo gars yi pour gars yi écarter pour oto bi la daal di romb waaye ba léegi oto Ousmane Sonko bougéwul mu ngi taxaw ba léegi fi mu taxaw ki yore wàllum euh, protocole bi tamit mu ngi waxaat ak gaañ yi su ko defee ñu jéem a. léegi xaaral xaaral xaaral ma danga bëgg ma dem euh, tribunal. waaw ci Abdou Diouf euh, maa ngi ak yow nag bul fàtte loolu dégg nga Abdou waaw ñoom it ñi ngi xaar ba léegi de. waaw moom kay ñun kay suñu mbir yëpp ci Salif la wekku fu ne nii. <laughs> waaye daal xamal ne laata Salif di yegsi. Uh-huh. Euh, li fi xew leneen mooy ñi nga xam ne dañuy yor ay commerce ci euh, xàll boobu ma la doon waxtaan. Uh-huh. daanaka seen lépp taxaw jamono ji ndax li ko waral mooy kenn amatul droit romb euh, dugg ci biir même su fekkee fa ngay liggéey sax soo génnee pour nga dugaat dafay jafe. Uh-huh. gis naa si ay mécaniciens yoo xam ne sànq gars yi dañ ñëw naa génne ñi nga xam ne yi. ñoom takk der yi mënatuñu xàmmee kan mooy liggéey ak kan mooy euh, ki nga xam ne da nga da nga ñëw pour leneen maanaam ni ñu koy faral di waxee ñuy gàmm ak ñuy raas dem. ñoom xàmmeetuñu partisans yeeg ah, ouvrier yi liggéey foofu. Mhm. exactement gis naa ci kenn koo xam ne dafa dugg ba pare ñu soog koo gis dañ koo génnewaat doonte sax ay tëju mécanicien la sol. loolu nag ba léegi gàllankoor la waaye itam leneen loo xam ne dina jur jafe-jafe mooy. mbooloo mii nga ma doon wax sànq. Mhm. Euh, sama mbokk taskati xibaar yi am na ci kenn ku ma doon tooñ sànq naan ma yow yaa may kiddee dañoo dégg euh, RFM rek daal di daw si génn si ci biti ki nga xam ne fa la dajaloo ba am ba tax na nit ñi gën a tee bari nag xam nga nit ñi suñ gisee caméra kay téléphone ak ay yu mel euh, gars tàllal ko dañuy gën a sawar ci ñëw ngir wax loolu aussi gën na indi. rassemblement bi nga xam ne voilà. rassemblement boobee nag bi ñu laajee yi ndax yéen vous êtes conscient du fait yéen a ngi euh, salfaañe yoon ndax rassemblement dañ ko tere ñoom liñ di teg mooy rassemblement bi ñuy tere mooy bi nga xam ne mooy ay nit ñoo xam ne dañoo jóg ngir xeexal démocratie waaye su dee école yi ñu rassemblé wu marché yi ñu rassemblé wu yeneen bërëb yi ñaa ngi rassemblé waaye su dee dañoo jóg rek ngir xeex ci la ñuy ñëw daal di tas rassemblement yi nga xam ne ñoom ñoo am moo tax ñoom nee nañu loolu duñ ko nangu am na ci kenn koo mais mais Salif Salif doogumal mais xam nga argument boobu it euh, maanaam euh, dese naa wér parce que euh, du ci du ci ñii xeex genre ndaje yu mel nii rek la ñuy aay gis nañu fi ay ngénte yu ñu fi tas. gis nañu fi mhm. ay céet yu ñu fi tas parce que rassemblement la ñuy daw. moom kay xëy na kay ñoom ñoo rassemblé wu parce que circonstances yi la. Euh, ñu nangu d' abord ci ne ci ne xëtt nañu ndigal parce que tamit euh, bu fekkee dañuy ne da ngay tey rassemblement quel soit lu ko mën di waral ku ko mën di def fu mu mën di jóge c'est-à-dire que xëtt nga ndigal. voilà léegi nag dañuy. Uh-huh. loolee nag lañ leen bëggoon gëm fen waaye ñoom nanguwuñ ko dégg nee nañu daal rassemblement su fi amee ci ñoom la ndax su leen bàyyi woon ñoom ci dox. dem daal di euh, soutenir seen leader kon rassemblement am waaye comme dañ leen tënk fenn benn ñoom ñëpp ñu daje fa rassemblement mënu faa ñàkk. léegi seen seen leader boobu ma xooli fu mu toll moog Salif Sow Salif. waaw ma ne fi mu toll nii gaz lacrymogène yi dafa dooraat. waaye yow Salif gaz lacrymogène dafa dooraat tànn bi ñi nga xamante ni parce que dañ ne oto Ousmane Sonko bi ne avancé. dafa taxawoon lànk mooy gaz rapproché bi. Mhm. ñu daal di bañ daal di koy euh, bloqué léegi nag euh, ci la. préfet bi ñoo doon négocier waaye gendarmerie bi. Mhm. daa woo benn waaye na ko largeel. ñu ngi noonu nag di largee ci lañ xawee tapu maag Chérif Dia Chérif Dia TFM. Chérif même. jërëjëf Salif euh, situation bi compliqué ne à ce a kii ngoon sax dina ko fekk tribunal parce que nga xamante ni mooy euh, ci Mermoz bi. depuis presque une heure de temps nga yàq gis noonu le préfet GIGN sax gis nga ñu ngi ñëw mais situation bi kenn booy ils sont surexcités prêt à accompagner xamante ne mooy Ousmane Sonko préfet li mu bëggoon mooy ñu bàyyi ñeenti oto rek gunge Ousmane Sonko ci oto boobu gis nañ fi sax ñoo xamante ay waa Pastef lañ ak tamit ay opposants ay docteur Babacar Diop quatre oto la may ñu dem ak xëy na bu presse bi booy ak scooter yi bëgg na tamit gunge ko mu mel ni kon euh, genre blocus moo moom mooy ci Mermoz muy situation foofu la gis pour mu dem école am yomb dafa wàcc. mais ñoo war nañ ko sax ñoom. voilà bu dem yaayam do dox parce que ni mooy ci yaayam bi. muy donc une situation boo xamante ni compliquée na après maa moom parce que le préfet bi nga xamante ne moom mooy diriger opération yi parce que préfet de police bi yore li nga xamante mooy maintien de l'ordre moom nee na muy quatre oto la bàyyi ñu mën a dem ci tribunal ba. xale yi nga xamante ñooy gunge Sonko ñoom nee nañ déet dañuy ànd ah, ñu tëdd benn moment waa di kii di sànni xeer yenn saa yi ah ndax Salif loo ci mën a xam it mooy lacrymogène saf na. mais mais Salif. waaw euh, soit yow wala Chérif man bëggoon naa xam xam nga lu mel nii dundoon nañ ko fi jaaroon nañ ko jaaroon nañ. fekk aar ma jox aar ma jox la Chérif. ayca ayca euh, maa ngi lay nuyu. delloo nuyu bu baax euh, sànq da nga wax lu am solo xam nga lu mel nii dundoon nañ ko fi ay jamono ci ak Idrissa Seck ndax loolu waruñu ci woon a jànge ba maanaam ba moytu lu mel nii benn ñaareel ba mooy bu ñu fi tollee fii est-ce que ñoom yoon ci sa xam-xam muy police GIGA comme ci mën di doon amuñu droit jël jël jël Sonko yóbbul juge bi. non je pense que comme euh, moom bañu dem. Mhm. kon kenn mënu koo forcer. parce ah, que c'est juste c'est juste une manière mu dem à l'heure donc xëy na yoon wee yéex li ko yéexal nag mooy xëy na jamono Idrissa Seck loolu ay at année deux mille quatre deux mille cinq la yàgg jamonoy léegi nga gonay tey ak réseaux buñ gisee live yi ñëw yokk ci yooyu yëpp day loo xamante ni kon day gën a yokk situation bi Ahmed Mouhamed compliqué na. Mhm. gis nañ sax le chargé de protocole bu euh, Ousmane Sonko ci diggéey Ndiaye ñi am na gis naa blessure ci kanamam gis nga mi ngi ne di waxtaan ak ba léegi les éléments léegi ñu ngi avancé. kon euh, bon on espère mu ñu avancé bu avancé ba fii tamit dina taxawaat parce que gendarmerie ak euh, bi mi ngi nii taxaw moom it ak waa GIGN nga xamante ni ñoom it ñëw nañ yokk ci mel ni kon ñi ngi avancé waaw yaa ngi avancé. Hmm. on espère que xëy na déggoo am na si diggante préfet bi nga xamante ni moo jiite opération yi. ak euh, ñi nga xamante ne ñooy staffu Ousmane Sonko su ko defee kon ñu mën a egg mais eggagoon nga xamante ni kon mooy ci rond point Mermoz ci ni kon euh, koo xamante ni 9h lañ ko woon situation bi dina compliqué. suñ jëlee corniche bi ak bouchon yi fa nekk également parce que gars yi xam naa bëggoon kon euh, mbir yaa fi xam naa. yow sëñ Jibi Ndiaye ngi nii ah Salif boo ko mënee ñu tàllal ko micro ba xam lan moo tax mi ngi naaj bi sax ah. sëñ Jibi Ndiaye yaa ngi ànd rek ci RFM de gaaw ah. waaw mais. man jàpp naa ne buñ ñu ko. ñuy dem du ñoom ñu wutal itinéraire. maintenant bu ñu wutalee itinéraire aussi tamit. dafa daal di ñu ay ay ay ay consensus ou bien des compromis un citoyen bu ñu ko convoqué muy dem. je crois qu'il est libre de choisir son itinéraire. compromis bi lan ah, la. quand on va quand on, quand on nous impose. Euh, le compromis y en a pas parce que pour ñun. ñoom ils refusent euh, le rassemblement et le et les pour pour plusieurs raisons. et ça je crois que c'est à le régler. fan ngeen di jaar léegi fan ngeen di jaar ñu ngi nii di dem topp leen rek. ñu jaar kay foofu léegi nag. yow la ah, gars yi topp ma rek. waaw ah. laa ngi naa ci de loolu da ko waral. bon xam nga comme fële dafa jotoon am ay ay échauffourées peut-être que ci laa c'est pas grave moo am di quoi quoi. ñoom ñu ngi ko jàppee que. kon kon Mouhamed dégg loolu kon mu mel ni daara dialogue suur moo fi am ne parce moom mi nga xamante moom moo yor protocole Ousmane Sonko nee na mooy définir protocole maanaam yoon wi Ousmane Sonko war a léegi ñoom euh, Chérif. te euh, gendarme am te dispositif mu yi noo gis moom mooy. ci corniche bi lañ bëgg jaar loo ki nga xamante ni moom mooy Ousmane Sonko les bon déplacement am na ndànk-ndànk. mais mais mais Chérif ñu ngi ñëw rond-point Mermoz bi nga xamante ni fii a jaar xamante ni mooy ci corniche bi dem ca palais de justice. bu euh, Ndakaaru euh, Chérif sëñ Salif la nga euh, ah, léegi Salif. waaw Mohamed ni ma comprendre intervention yi mooy Ousmane Sonko dañu bëgg cortège am jaar buntu université. ñoom ñuy bañ loolu bëgg mu jaar ci corniche bi dafa mel ne loolu indi coow li de. waaw effectivement ñoom sax exactement du woon sax corniche lañ ko bëggoon ibil parce que dañu bëggoon mu aw buntu IAM. Mhm. mais euh, euh, di ñëw euh, daal def intervention su ko defee ci lañ bàyyi woon ñeenti oto yi nga xamante ni ñoo nekk ci corniche bi ci cortège bi di jàll. préfet laa ànd sax daa daa mel na yëf yaa ngi tàmbalee doxaat de circulation bi waaw dégg nga après après. Mhm, waay noonu la ko jàppee noonu la ko jàppee. Euh, mais mais mais ba tey ci wàllu woowu saalif ma dolli la ci ne. waaw Marie Louise Ndiaye bu l'observateur mi ngi ñuy xamal ne. Euh, Ndeye Khady Ndiaye mi moom salon Sud. Salif. dégg nga léegi gendarme bi léegi tëjaat na rond bi boo jógee rom boo jógee boo jógee IAM. Mhm. ñëw ba ci rond point bi nga xam da nga la jël benn rond point. Mhm. soo ko dem euh, nga xamante ni mooy kii gendarmerie. bloqué waat na rond point boobu léegi tamit ñu ngi joxewaat yeneen ordre pour ñu bloqué euh, yeneen sens yi nga xamante ni yëpp ñu ñëw ci rond point bi maanaam oto lañ bëggul gis ñoom instant yi ci rond point bi euh, gis nga ñu ngi nii di tëj li nga xamante ni moom mooy rond bi léegi nag ñoom rond bi ba ñu ñëwee ba ba ci rond point bii nii ni ñu ko defaree mooy. Euh, yoon bi jëm ci corniche bi foofu dañ faa gàll benn oto gendarmerie daal di leen ibbil beneen yoon bi nga xamante ni mooy aw ni aw buntu université donc ñoom corniche bu Dakar bi. Mhm. foofu cortège bi du ko mën a aw. à mhm. moins que. gendarme yi déplacé seen oto gendarme yi nangul leen ko. Mhm. léegi nag euh, ñu ngi nii di wër rond point bi léegi nag ñoom bu ñëwee ba fii ma taxaw nii ci lañuy ñuy xool ndax am ñoom droit la ñuy def. dem jëli corniche bi. wala li nga euh, xamante ni mooy gauche. Mohamed ma dolli la ci tuuti rek Marie-Louise Ndiaye bu l'observateur mi ngi ñuy wax ne. Euh, Ndeye Khady Ndiaye mi moom Sweet Beauté. moom ak euh, jëkkëram ak seen bébé seen doom. ñi ngi ñi ngi noonu di dugg ci bureau juge bi donc ñoom yegg nañu tribunal ba dugg nañu ci bureau juge d'instruction bi leen war a auditionné. Euh, bon jàpp ma exactement heure bi. mais ah. li am daal mooy moom ñu ngi noonu di soog a dugg ci ci bureau juge bi ñoom ñett ñooñu muy Ndeye Khady Ndiaye. borom ah. këram ak euh, seen parental bi ñu yor muy muy liir bi nga xamante ne ji moom la moom lañ doon wax naan bi mu juddoo euh, maanaam décès non waa prématuré la woon ak yooyu. donc ah. ànd na ak yaay ji ak baay bi ña nga ña nga kon ci bureau juge ba. foofu nu demee ba léegi ñu ngi tàggatémbe. waaw ba léegi ñu ngi tàggatémbe bi nga oto boobu romb na mais léegi li ci bizarre mooy <laughs> gendarmerie daa ñëw baare yoon bi carrément maanaam léegi même oto Congo bi ñu toll nii dañ koo baare. Eh, yow ñaata grenade nga jël suba léegi. waaw mun compté wu ma ko de mais yii may gis nii. Hmm. daa mel na yu bees la. <laughs> est-ce que est-ce que moom. Ah, ah, ah. lii ay grenade Covid la lii lii baaxut. ñu nii euh, Chérif Chérif lu xaw sa ruq waaw rox bi mooy ba léegi nag euh, itinéraire mooy li waa ji waxoon préfet dafa bëgg gars yi jaar ci corniche bi ñoom ñu bëgg a jaar ci avenue Cheikh Anta Diop bu Dakar moom taxawaat ci xamante ni kon moom mooy euh, fii ci rond point euh, Mermoz muy situation boo xamante ni quand même ba léegi rek mooy lënd rox ñàkk déggoo bi am seen diggante parce que le préfet ngi nii menacé na bu gars yi dëgëree bopp dina chargé waat te bu joxee ndigal moom kii di capitaine bi dina chargé gars yi bu ko defee kon nga gisaat noonu coow li nga xamante ni Salif déggaat nga ko mu mel ni kon gis nga gaa yi ngi taxaw ak seen euh, barricade bi nii daal bouclier la gendarmerie def su ko defee kon Salif nga gis ni daal gis nga boo yaa ngay ne di jubilé waat encore devant le véhicule de Ousmane Sonko euh, préfet mi ngi concerté wu ak euh, bon des éléments je vois deux éléments du du GIGN yi nga xamante ni ñoom it ñu ngi fi ba léegi te tamit boo xoolee les curieux mooy lu wax tànk rek. jamono ji comme réseaux sociaux yeeg xarala bi ñu toll gars yi bu ñu ko seetaanee ci direct bi ñëw ñi nekk ci kaw immobile yi di seetaan ak yéen bel xam naa li leen def sax bëriwul ndax buñ xasee ba ba tribunal zone police ndax xam naa dañuy bàyyi ak seen i naataango yu police ñu wéyal li nga xamante kon mooy voilà surveiller lii di déplacement Sonko ba ca tribunal ba waaw ñu ngi déplacé waat dafa mel ni kon finalement décision bi jël nañ ko gars yi corniche jërëjëf waaye nag léegi euh, ñu ngi nii di di jóge di jóge li nga xamante ni moom mooy rond-point yi Mouhamed ngir ñëw euh, xëy na daal di jël li nga xamante ni moom mooy corniche bi waaye li ci paradoxal mooy dañuy ut yoon mais yaakaaroon nañ ne daal. Mhm. ñoom tamit ñoom ñoo xam ñoo am information yi waaye di wut di wut yoon tamit di baare yoon moom après doo xam lu muy nduru. waaw oto Ousmane Sonko bi tamit raam na taxawaat na jibi jibi jibi moom tey ragal naa Chérif lu fay moom. waaw sonn na trop ah doon chef de protocole parce que moom moo mën a maîtriser xale yi comme ñoom euh, nee na ay patriote lan finalement gis nga ko nee na xale yi ñu daal di rek dox diir euh, daal di tegu ci yoonu tribunal mais daal tardé dana am xaw ma nag attakat ba bu demee du fekk mu nekk pause wala ci yeneen dossier est ce que kon du gën a compliqué ci li nga xamante ni mooy. Ndiaye mi may wax léegi ne euh, soxna si moom bërëb ba ak borom këram ak bébé ba.

Euh, Mouhamed dégg nga noonu kon la la yëf yi demee. Mhm. mais cortège bi moom ñaari mètre yi mu daw taxaw. ñaari ba léegi ba léegi ñu ngi ci rond point bi. ba léegi ñu ngi ci rond point bi ba léegi ñu ngi ci rond bi préfet bi préfet bi naa ko mu jege am na ku ñu jàpp. Mouhamed. oui ku ñu jàpp ci. am benn waaye bu ñu jàpp boo xam ne day gunge Ousmane Sonko. mu ngi ne ñu koy dugal ci oto gendarmerie bi. Mm-hmm. moom nag résisté wul. waaw dem na jàpp nañ ko dugg na toog na. ah waa ji sama waa ji Bécaye nee na ma waaj ji lii rek la doon sàq. kon ñaanam nangu na. mu ne dafa bëggoon ñu jàpp ko waaw loolu da lool ma Bécaye wax. Mm-hmm. kon oto gendarmerie bi di nga tubaab euh, am na ñuy ñu ñi nekk fee nee ne seen i woto. ñoom waa ay presse lañu ñoom itamit euh, ñu ngi kaas parce que oto GIGN bi war a xàllil Sonko. daa ñëw ba ci tali bi daal di koy gàll wala galañ la ñuy wax. ñaar yëpp baax na. ayca kon boo ci jël rek. daal di koy baare. léegi nag indiwaat euh, nañu tali boobu léegi nag day jaayeen fi mu toll nii mi ngi ci kaw Ousmane Sonko ñu ngi nii préfet jiitu di waaxu oto GIGN topp ci préfet ñun ñu topp ci préfet ñu ngi nii di dox. utali nga xamante ni moom mooy corniche bi. waaw parce que gëm naa ne corniche bi moom euh, comme corniche bi euh, bari bari gëm naa ne buñ fa yeggee. waaw li ngeen waaw li ngeen daj foofu du ngeen ko fa daj. waaw waaw mais mais mais wax ji kay mooy nan lay tegoo ci corniche bi également. waaw léegi léegi moom. <laughs> donc xam naa ne yëf yi du yomb liggéey ndaxte. Mhm. moom it ñëw na ba ci yoon mi ñu war a jël pour dem ci ci corniche bi mais moom nangu aw ci corniche bi moom oto. da ko awal du jubal ci euh, avenue Cheikh Anta Diop bi Ah. moom otoom foofu la ko jubal léegi nag maa ngi gis nag euh, sécurité Ousmane Sonko yi ci lim bu takku daw wutali corniche ba xaw ma nag ñoom lan la ñuy daw li jël ci côté euh, corniche ba mais en tout cas fi nii tamit euh, cortège Ousmane Sonko bi waa GIGN moom xam naa ne tey bu ñu yoroon fas ñu ngi naan wulli bi du yomb ci ñoom ndaxte ñu ngi nii léegi ndax ñoom yoon bi ñu xaali woon yoon boobu gaañ a awuñ ca dañoo bëgg aw beneen yoon dem avenue Cheikh Anta Diop léegi nag euh, maa ngi seen euh, benn bu weex boo xamante ni yab na li ñuy ay gros barrage euh, di ñoo xamante ni ñoo yore kaaraange yi. kaaraange kan Sonko mhm. Mhm. mooy mooy ñi ngay faral di gis rek ci ci mbooloo yi. Mhm. ñoom ñu ngi ne yéeg nañ ci oto ba nag damaa xamul ñoom suñ jëm a yooyu ñu ngi wootante daal ñu ngi wootante doole sax ñu ngi wootante parce que li ñuy wax renfort gis naa ne ñoom tamit def nañu renfort. ba ñu jógee ci kër gi ay vingt lañ waaye fi ñu toll nii seen lim li mu ko gisee nii war nañu cinquante donc oto gendarmerie double camion ñëw na daal di baare yoon bi nga xamante ni Ousmane Sonko bu ko jëlee day dem université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru avenue Cheikh Anta Diop boobu la ñuy bañ boobu la baare mais léegi cortège bi ba léegi mu ngi jublu noonu Ousmane Sonko laayee ngi yuuxu jege otoom di ko di ko di ko di ko kii donc ba léegi euh, mu ngi ci biir moom Ousmane Sonko daa wàcc woon verre bi léegi la ma waaj wax daa wàcc woon verre bi sama waay na nga def ba bi lu mu def. Sonko wàcce verre bi nit ñi gis ko rek xam a wax bi nit ñi gis ko rek la quoi. ah waaw moom nee na guerrier la. mais mais waaw Mouhamed euh, ndax loolu it mënul doon justification ci moom ci ci bu tardé ndax xam nga ki nga woolu euh, yaakaar naa fa muy jaar ba wuy juddu yaa yaa ko koy sàkkal ah, mais xam nga ñoom it seen stratégie dana tax euh, du ñu nangu muy jaar fenn fii ngir muy jur lenn li lu ci mel ni ay trouble à l'ordre public ak waxuma nag loolu la jur mais xam nga ñoom it bu fekkee danga nga war a maintenir de l'ordre nga xam ne fii bu fa diw jaaree mën na indi ak salfaaño doo ko bàyyi mu jaar fa à un moment mooy paradoxe bi nga xam ci am waaw loolu loolu am la. Mhm. mais comme ni ko chef de protocole am di waxee sànq di ji bi Ndiaye ñoom bañuy sax euh, ñu wax leen yoon bii ngeen di jaar yoon bee ngeen di jaar mais ñoom li ñu mënta nangu mooy lan moo tax ñuy di leen yoon di leen tracer itinéraire. Mhm. ndaxte ñoom nee nañ dañoo am seen itinéraire di jubal dem corniche mu ne non bu ñu eggee ba jaar moom mënuñu fee jaar ndaxte gendarmerie non seulement indi nañ camion bi mais indiwaat nañ beneen oto dolli euh, dégagé nañ tali bi yëpp ba mu set tali bi nga xamante ni moom moo joge moo jëm corniche moom moo jëm corniche ba préfet gaa yaa ngi koy sosatal xaw ma ndax dina waxam de. Euh, léegi léegi Salif. dégg ngeen. nee mhm. na il a autre chose à waaw waaw naa fi mu nekk nii moom. waaye Ousmane Sonko lañ wax ne ñoom dañoo waa affaire dañoo ndax fële. ñoo tax ñoom ñu ne cortège bi jaar foofu. léeg-léeg jënd loolu. Ah, ah. euh, <laughs> Salif waaw Mouhamed léegi bàyyi ma wutal la renfort Ablaye Cissé mi ngi ci mi ngi ci mi ngi ci mi ngi ci cortège bi Ablaye. Euh, Ablaye may ma tuuti Salif. ma ne ñu ngay tiiree ci gaz la mademoiselle tardé. yow moom bu ñu nee gars yi aw la nii gars yi na awuñu nii rek ñu tardé. problème bi nag mooy vent bi daf maa contre man yoon yi may jël baaxul de. <laughs> vent bi day contre. yaa moomee vent jëlal. waaye waa Abdoulaye demal. yow yow yaakaar naa say vaccin contre Covid mën nga koo différer ba jëmee jamono ndax li nga jël ci lacrymogène rek. non fii ba six mois kay baax. Euh, euh, Abdoulaye yaa ngi ci yaa ngi ci convoi bi. man kay maa ngi ci maa moto RFM bi. moto maa ngi ci welo bi di pédale rek waaye ci convoi bi si mu toll nii. Uh-huh. foofu la Salif joxe. fa la cortège bi taxaw parce que gars yi dañoo ne cortège bi daan nag mbooloo bi. mbooloo mi nag léegi xam nga fi ñuy jaar. Hmm. Cheikh Anta bi la bëgg a xëtt nii. am na ñoo wàcc wàcc roonu yoonu université parce que comme cortège ci corniche lañ ko bëgg a jaarale. te takk der yi nee nañu du ñu jaar du ñu ànd ak mbooloo mi mbooloo mi ñoom ñu ngi xëttal seen bopp yoon. di jaar ci route de Ouakam bi wàcc Cheikh Anta Diop yow sëñ bi yow ci ñu njëkk a xëtt yoon nga bokk. waaw waaw nan ngeen fas yéene dem ci. fas yéene ci gunge ànd ak moom. waaw lan lay wax. dafa maa doon sa gis nga la gis nga maa maa ngi maa ngi ñaan si président. bu ngeen bàyyi rek mu dem après mu dellu si waat. non non loolu waaw waaw dañ ko gunge ñu ñu delloo ko ko encore mu dem si kanam. parce que foofu lañ ko jëlee. deful dara man Sagnal laa tudd Sagnal waxtaan laa dégg. mais depuis suba teel sept heures du matin maa ngi foofu. mënul nekk sa waay mënul nekk dañoo sonn. Ousmane Sonko deful dara mais bu fekkee moom moom dafa def dara wala moom moo viol xale bu jigéen bi. te nañ ko góor ndànk. loolu moom nañ ko bàyyi loolu moom nañ ko bàyyi ji. dëkk bi dafa jaxasoo. waaw sëriñ bi. waa waa waa li yokkul ci jaxasoo bi kon. torop lii moo dina du yomb tey. waaw du yomb maanaam Mohamed li nga ciy dégg nag gars yi. Mm-hmm. xam nga organisation bu artisanal la waaye nag c'est très affiné. borom sculpteurs yi téléphones yi da nga leen di gis ñu ngi tous les da ngay gis avancé di woo di téléphoné en tout cas ñoom mbooloo mi. waaw waaw nee na moo wax la jàmm salaam rek waaw sëñ loolu la ñëpp di wut waaw <laughs> nee na li ñuy def yëpp jàmm ak salaam lay lay mujjee loolu defe naa mooy yéene ñëpp alors mbooloo mi ci cortège bi nag c'est-à-dire bëgguñoo sax quitter rond point bi nga xam ne mooy rond point Société Générale bi avant juste Elton bi noonu parce que dañuy bañ sax xam naa alkaati yi nax leen leen ci lañuy jaar jaar feneen loo ciy dégg daal ñoom dañoo seen côté dafa dafa effilé maanaam am na ñu bëri ñoo xam ne avancé nañu. Mhm. waaye dañuy continuer di gëstu ñi nga xam ne ñoo nekk ginnaaw. war daal bañ ñu ne leen fii lañuy jaar ba pare jaaru ji feneen. mais pour l'instant circulation bi ci côté euh, de Ouakam bien. vraiment rond-point ba rek moo am mbooloo mi nga xam ne moo fa taxaw parce que fa la ñu téye jum cortège bi mais leneen li amagul dara seen organisation scooter yi nag moom kenn mësul gis nii su bëri moo war nal nii <laughs> su ngeen ko di ngeen bu taxaw di wax téléphone mel ni mel ni mel ni pisteur mel ni kit di jox ñeneen ay information yooyu ñoom daal noonu la ñu organiser xamuñ naa ndax ci koñ la ñuy dugg parce que boo jëmee boori université sañ nañoo njortu ni sañ nañoo njortu ni alkaat yi duñ leen bàyyi boori université parce que aussi xam nga zone de tension la ak yooyu. Mhm. voilà ñu ngay avancé ñu ngay ñëw. moom it defe naa ni foog ñu taxaw xeexoo lacrymogène yaa ngay jolli foofu moom it est-ce que du def ni Salif sax waaye. yow yow yow baa rek. waaw <laughs> borom sareet bi sax ci corne yi man de lii kenn mësu koo gis borom sareet bi nag na moytu parce que façon bi muy dàq nii muy màmm ci mbooloo mi nii mën naa indi leneen. te loolu vraiment bokk léegi Ablaye. waaw ñoom ñu ngi nii ñëw nag. Ah, ñu ngi ñëw. loo ci dégg daal ña ngi nii di ñëw nañu ñoom ñooy ñëw gisaguma ci melul ni cortège son melul ni cortège bi mu ngi ci. dégg nga leen ak seen i scooter ak seen i waaw nga ne. Euh, su ma juumul euh, cortège Sonko mi ngi ba léegi ci rond bi Salif. waaw cortège ma nga ca rond point bi mais nit ñi ñoom. ñu ngi di ñëw. waaw waaw waa ji nee na ñu may ko mu mu ne lan loo wax. ah waaw. jërëjëf waaw waaw nee na mu ngi ñuy ñaanal jàmm ñu ngi waa groupe Futurs Médias waaw jërëjëf sant yàlla rek ok jërëjëf jërëjëf jërëjëf képp xoon def na xatul noonu kon yoon dina tasaaroo ñu kam man kam bopp ma dina dëgg yàlla moom sama wote dañ ko toj xam laa ko daal ñu toj verre xam nga loolu moo dul yomb sama wote fii man ko loolu mo fi dem ci bopp borom man damaa liggéey de damaa liggéey mhm. mais dañoo toj sa wote jàmbur ay sa liggéey ñëw fii sa adopté waxoon naa ko ne ko ah, kon lan lañ def ma ne ko amul problème man kan li ma mën a def daal wote ma dama koy bàyyi foofu noonu ma dem cortège tey moom. xoolal jeex na jaajëf. donc faa ngay daw de moom da cee bokkul. da doon dox doxi soxlaam gis cortège bay ñëw ba xaw a jiitandoog moom waaye daal daw yi mu daw defe naa ne mosu ko entraîné ci àdduna. très bien euh, euh, parce que dafa ñoom dara dara dara dara. Euh, Ablaye. ñun ñoo kenn ñu ngay filmer que xaaral ma dem xooli Salif Sow ba xam fan la yëf yi toll saalif waa Mouhamed Ndiaye. Hmm, affaire bi bougé gul de wala bougé na. non bu yéegul parce mu ngi ne taxaw ba léegi ci rond bi mais gis naa léegi préfet ñëw wax ak ñoom. Mhm. ñu weccee ay kàddu waaye nañ ma pare waaye boo xamante ni moom. li wér daal mooy ne ñu parce que cortège ba léegi ma ngi taxaw fa mu taxaw fii nag taal nañ ci xeetu gaz lacrymogène yoo xam ne bruit bi sax sàq na gaynde fii euh, moom ma taxawal waaye carton la yore moom taal ko taxaw jàkkaarloo gars yi di xencu euh, waaw ayca ni ni yëf yi demee nii tey noo ko waaw sant yàlla rek. waaw man rek. mu toll nii kay moom. dem ba jeex rek. kooku kooku mbokk Mbaye Diouf la. Hmm, waaw nuru na ko Mbaye ko nuru na ko euh, euh, Abdou Abdou Diouf laay xool ah, ah, juuf euh, abdu juuf Abdou Diouf junior. Abdou Diouf junior. bon. jàppandeegul nañ ko nañ ko nañ ko nañ ko jéem a xooliwaat euh, Salif wala Abdoulaye Cissé euh, kan laa ciy bàyyi mu continuer ak ñun pour ñu xam exactement ni ni mbir foofu. waaw euh, bi. ja gars yi nag ba ñu ngi chargé ah. presque dix minutes yoo xamante ni gendarmerie arrêté wu ñu. ci grenade lacrymogène. ci grenade lacrymogène yi parce que gars yi ba ñu ñëwee ba ci buntu IAM bi noonu dañ leen tase oto songo ñu ko bàyyi mu mais dañoo def ful daal daw wiiri dama jàpp ne bi léegi nag fi ñu toll nii moom xeexoo bi tàmbali na Chérif Dia daa mel ne si ñoom la jógee ma may la ma nooyi wala ma jox la micro. aywa Chérif. Mouhamed. oui Chérif. waaw ba léegi la situation est tendue xëy na lenn rek euh, xëy na ci avancé yi mooy la foule bi accompagné woon kii moom tenir na leen à l'écart maanaam puus na leen. Mhm. ñu jëm fi nga xamante ni kon mooy si avenue Cheikh Anta Diop bi côté lycée Seydou Nourou Tall léegi fi mu toll moom. Sonko moo fi def ak euh, élément gendarmerie pour ñu waxtaan parce que gars yi li ñu bëgg mooy ñu jaar ci corniche mais ñoom euh, suuf si ma am te ñu wax ko mooy dana ñoom wóolu ñoo jaar ci kii bi corniche bi parce que pour des raisons de sécurité nee na ne yow bon am na ay yu ne xaw ma dañ leen di sànni xeer moo tax ñoom ñooy défindiroo seen bopp seen itinéraire le préfet mi ngi continuer moom ci li nga xamante ni moom mooy euh, négociation bi ci loolu ah, moom je parce que mi ngi ñëw di tirer ay lacrymogène à vue sur des journalistes naan la presse et cetera il est excité xam naa peut-être nervosité bi la mais comme ñoom dañ leen a formé voilà comme dañ leen a tàggat formé leen pour ñu maintenir l'ordre ak yooyu mel je pense que war nañoo garder seen sang-froid ci situation yi parce que ñun dañu ñëw pour def suñu liggéey nekkuñ fii pour euh, naka su dul noonu. te gis nga ko ba léegi mi ngi ah très euh, l'élément la xam nga te moom il ne man ci armée sax dama daa am kilifa parce que am na fi euh, euh, benn colonel capitaine ni nii colonel baa ngi nii je pense que ñi nga xamante ñooy kilifa yi ñoom ñoo war yi caméraman waaw kii nga xamante ni suñ xarit Cheikh la nekk fële ca AITV moom it dafa mel dafa blessé waaw mooy West TV Cheikh mi nga xamante ni la gis nga tànk bi mi gaañu la. lan moo ko blessé mooy leen doon wax rek ci sérénité bi ak yu mel nii parce que fii taskat xabaar yi bu ñu ñëwee c'est pour mais non pas ci euh, yàqal liggéeyu ci nga ñi nga kon ñoom ñooy leneen. beneen bi mooy li yéexal affaire yi mooy le préfet benn moment convoqué woon na avocat yi parce que ci biir ñi nga ñoom ñooy moom laa bëgg xool sax ban avocat mi ngi ci oto benn compromis seen biir pour régler problème mu itinéraire bi nga xamante ni kon ba léegi moom moo posé problème moo tax ñu bloqué fii ci euh, euh, ñi nga xamante ni kon mooy rond point Mermoz ba tax na kon bu dee borom oto yi tamit ñu ngi ñuy déglu moom kuy jaar fii ba nga teggi xam ni Mermoz moom mënoo faa dugg duggee ko ci Atépa bi wala nga jógee avenue Cheikh Anta Diop ñëw wala nga jóge fi nga xamante ne mooy Wakaam wala nga bëgg dem fële ca VDN euh, ba loolu oto Sonko nii xam naa dinañ jéem a xool ban avocat moo nekk ci biir oto bi. léegi léegi euh, Chérif euh, moom it nit yaakaar ne kon euh, dina mën a régler situation bi. Chérif Dia. léegi li ma bëgg nga nga bu baaxee ñu ko mooy fan la Sonko situé wu exactement présentement. dégg naa am jafe-jafe. yaa ngi may dégg. waa ngi lay dégg waaw. waaw ma ne Ousmane Sonko moom ci jëmi boppam fan la tollu tembe jamono ji mi ngi ci rond-point Mermoz rom rond-point Mermoz maanaam boo jógee ci kër Atepa doon dugg Mermoz rond-point boobu ngay gis noonu nga xamante am na benn banque bu fa nekk. Mhm. station Elton bi. Mhm. ci rond ba la oto bi dafa taxaw fi mu toll entouré par ces gardes du yi nga xamante ñoo fi nekk préfet bi moom mi ngi yore téléphone ba léegi ci corps ba ne mi ngi doon waxee. ma nga ne moom ci daal maa sax dafa mel ni daal fii moom taxaw la def na temb oto bi ñu ngi ne taxaw waaw fay seen oto yi donc les véhicules sont éteints mu mel ni kon lan moo waral problème bi nag moom moo tax xam naa Salif la nga doxal ñu dem bi compliqué na ñu yeggee ba sécurité. léegi waaw euh, finalement euh, mi ngi noonu maître. Euh, chaque ah waay waaw maître Khoureychi Ba moo nekkoon kon ci biir oto bi mi ngi nii moom ku ne xam na ko moom ci dossier yi parce que ñu ngi koy surnommé sax l' avocat des activistes. xam nga rek ñoom Guy Marius Sagna gaa yi ngi fiy gis yëpp moom moo leen di défendre maître xam naa bu kii gis nga préfet pas question donc affaire bi daal ba léegi kon mënul dem gars yi corniche préfet nee na corniche gars yi nee na euh, avenue Cheikh Anta donc mi ngi nii waaw le capitaine qui dirige les waaw préfet nee na on ne peut pas rester sur la voie publique mu mel ni kon voilà voilà tout voilà donc donc presque indésirable ba léegi rek ci nga xamante ni mooy topp topp cortège Ousmane Sonko bi xam naa maître su pare woon ñu laaj ko lan moo tax kon euh, gars yi taxaw boobu ba léegi Salif Salif. Salif. Mohamed bon li ci des mooy GIGN nee na ñoom jël nañ engagement protéger Sonko am gars yi dañ ne parce que Gidi Gueye Gidi moo ne maanaam chef protocole bi danoo di am ay dafa am nervi yu jugee siège affaire xam nga comme comme soriwul fii ci Mermoz bi. Mhm. dafa am euh, nervi yu fa jógee nekk pour sànni xel élément GIGN bi nee na moom jël nañ engagement pour protéger sax Sonko ko ba tribunal bu dee loolu la ñuy jot. ñu loo xamante ni quand même c'est une bonne nouvelle parce que. Euh, c'est un corps de de la république ci boppam ñoom ñoo yor kaaraangeem ak yenn kilifa yi nga xamante ni kon ñoom nekk ci réew yi opération yi délicates yi tamit ñoom ñoo koy mëne je pense que bu fekkente ni commandant bi jiite na moom mën na assurer protection na gars yi dinañ ko wóolu bu bàyyi rek gars yi mën a avancer maître mi ngi jiite léegi waaw na journaliste xalaatu ko donc beneen problème am noonu doo koy atti hmm. boo xamante ni bu fekkee problème sécurité gars yi tamit comme dañuy politique c'est normal fi ñu toll nii parce que c'est des moments importants mm-hmm. dans l'histoire politique même pour politique pour médiatisation affaire bugg ñoo dem sans la presse aussi mm-hmm. pour wane bain de foule bi pour wane aussi itinéraire bi c'est bien aussi pour la communication parce que dañu nekk n'oublions pas léegi léegi préfet euh, euh, ah. euh, préfet dane auto journaliste du ko topp du topp Sonko ah ma ne préfet bi lan la wax dane auto yi ñu dem non préfet bi moom auto yi nan dem quatre oto yi presse bëggul presse bi topp ko léegi sax ko parce que ab moto bi oto véhicule mooy benn pick a boo xamante ni ko joxoon journaliste yi bu dee ji hmm. wàccee nañ journaliste yi donc finalement on retient trois véhicules yoo xamante ni ah mu def waaw élément GIGN bi nee na il a deux véhicules mu mel ni kon léeloo hmm. euh, mën na cee bañ am même euh, ñu ngi waxtaan xëy na Sonko pour xool naka lañ def taalif mu mel ni xëy na déggoo mën naam. xëy na problème donc donc Chérif dafa am benn information boo joxe sànq. ba ñu wax ne oto journaliste na génn donc euh, ba dañ ne cortège bi ëppoon na lii mais dañ ne ñeenti euh, bi presse bi nekk parce que moom mooy indi cortège bi mais ba ñëwee ba fii ci rond bi léegi dañ ne ñetti oto doy na sëkk oto presse bi day génn DG nag ne gars yi ne leen déet ñun kat fii bëgg ñu fay aw ndaxte dañoo dégg ne dafa am ñu nekk fee dañuy xaar ak yooyu waa GIGN ne leen mën ko sécuriser ba mu àgg euh, mën nañu sax fekk oto Sonko su ko defee wàllum kaaraange gi ne seen xel dal ak yooyu waaye euh, ba léegi daal euh, oto yaa ngi taxaw. waaw oto taxaw demuñu kon daa mel ne li nga xamante ni leen wax ni kàddu dénk leen ko daa mel ne doyu leen ba léegi daal amul benn décision boo xamante ni jël ko ci ndaxte maître Souleye Sy Ibrahima nga xam ne Sonko bu mu génnee buntu a laajte tey ba mu ñëwee di wax ak kii di préfet dafa ne ko may ñu ñu aw fii nii ki nga xamante ni mooy aviation affaire bi ñu ngi gérer suñu bopp sécurité ko euh, Alioune Badara Samb ne ko il n'en est pas question ci tubaab maanaam loolu moom. xel xalaatu ko xel ñaan. Mhm. xel daju ko. Mhm. loolu daal mooy situation bi fi mu toll nii nag. léegi léegi xaaral ma dem xooli situation tribunal palais de justice. laaj jox euh, Abdou Diouf. Mohamed. Euh, foofu waaw. Mohamed. Abdou waaw maa ngi lay dégg. Abdoulaye Cissé Mohamed ah waaw. lii lay. may ma ma xooli Abdou Diouf dafa yëglu sànq. Euh, Abdou Diouf junior. waaw Mohamed. Ah, ah, waaw. waaw fii nag fii nag euh, dafa am lu may fàttali ndeysaan. mooy ci atum 2007 bi nga xam ne euh, problème yi diisoon na métti loolu ci université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru méthode yi nga xam ne moom la étudiants yi amoon maanaam lakk fii gars yi taw dem foofu ñu bett leen jaare si ginnaaw daal di def li ñu fay def jamono jii loolu la ñuy nemmeeku maanaam groupuscule lii dañoo bëri nekk ci mbooleem xeetu xàll yi nga xam ne ñoom ñooy yóbbu ci euh, tribunal bu bu bu Ndakaaru on a de faire le tour tout à lool loolu loolu lañ fa gis fépp foo dem tey am nañ fa ay ñoo xam ne ñu nga fa di taxaw di yuuxu lu ci gën a bëri nag ay étudiants lañu parce que ñoom ñoo koy wax ci seen ñu bopp ne ñun ay étudiants lañu waaye lu ñu tax a ñëw mooy fexe ba gunge Sonko mu ñëw fii ci tribunal bi waaye ñu waat ko mu waat loolu c'est très important ci ñoom seen seen seen i kàddu nee nañu loolu moo leen ëppal solo mooy bu ñu ko gungee ba mu ñëw ñu gungewaat ko noonu bu ba mu dellu ndax ñi fi ñëwoon yëpp ñu leen di déglu ci wàll wi. dañ leen bàyyiwaat ñoom ñu dellu du ñu benn yoon ki nga xam ne moo di Ousmane Sonko mu daal di yendu fii wala mu fanaan fii wala ñu koy jéem a sàkkal beneen pexe loolu mooy li fi xew leneen li nga xam ne man bëgg naa ko si yokk balaa maa daaneel moo di. Mhm. booy xool boo jógee ci euh, prison bi. di remonté mel ni ku jëm ci tribunal bi beneen xàll bi féete ci wetu ambassade du euh, Japon. xam euh, na am na benn buntu bu nekk foofu. waaye bunt boobu xàll boobu yëpp dañ koo tëj. amul kenn koo xam ne mu ngi fay taxawaalu. loolu moo tax ñu am njortu ne euh, foofu xëy na foofu lay jaar pour pour duggee foofu euh, Mouhamed leneen loo xam ne maa ngi nii di ko gis moo di euh, gune yi ma la doon wax ne dañ doon rassemblé par groupuscule mhm. ñu ngi nii jóge diggante ministère de la jeunesse ak fi nga xam ne moom moo di institut national d' études et d' action pour le développement de l' éducation bu ministère de l' éducation nationale mhm. xàll boobu moom lañu jël nag wàcc jëm nag mel nii kuy jël à droite nii ci wetu ministère bi ci ginnaaw pour jëm ci côté groupe bi nga xam ne moom moo nekk ci euh, euh, fële ca garage Lat Dior loolu nag mooy li li fi xewagum jamono ji waaye boo xoolee ci corniche bi jëm euh, RFM di nga gis ay nit ñu baree baree baree bari maanaam li ngay gis mooy nit ñi dajaloo wuñu waaye dañu nekk ci ay pàcc pàcc pàcc yoo xam ne boo xoolee sa da ngay gis ne ay nit ñu bari la su fekkoon ne dañoo rajaloo loolu yëpp ci stratégie la bokk xëy na lépp lu ci am lu bees incha allah dinañ leen ko indil ci rajo Futurs Médias. léegi ma dem seeti Abdoulaye si Abdoulaye Diouf Junior merci euh, Abdoulaye. waaw Mohamed. sànq yaa ngi yaa ngi woon ci mbir. Euh, Mohamed Mohamed gis xam ne euh, ça tous les discours tous les. toutes les images tous les symboles. Mm-hmm. Euh, fi nga xam ne mooy rond point société générale bi yaayal bi. Mm-hmm. boo gisee peut-être Sall dina gis ni mbooloo mi ñu ngi doon commencé def mouvement di avancé. Euh, détachement bi taxaw foofu. jàkkaarloo woon ak euh, ñi partisans Sonko yi. am na moment ñu ngi chauffé alkaati yi vraiment di leen chauffé bu baax a baax mais dafa jékki-jékki benn moment rek. mel ni kuy responsable détachement bi ñëw. ba ci ñoom ñëw na ba ci ñoom bi muy ñëw sax gaa yaa ngi mel ni kuy xabtalu ñoom tamit yaakaar ni daf leen def yées yi mu ñëw ba ci ñoom yëkkati ñaari loxo yi mel ni kuy fraterniser mais gis nga scène bi mujj gi manifesta presque dañ ko bëggoon a yëkk porter en triomphe pour te montrer que parfois il suffit d'un petit geste après waxaluñu leen ko sax seen bopp manifestants yi ñoom ñoo doon calmer seen bopp seeni nit pour wan leen ni waruñoo xeexoo waruñoo jaamarloo parce que nekkuñu fii pour loolu cest à ñoom jéem nañu ko mënuñu ko mais ce petit geste là bi chef ba ci ñoom ñoom ñu mel ni sax kuy xattal parce que yaakaaroon nañu def leen di chargé wala def di défier si mais bi mu ñëwee yëkkati ñaari loxo yi croisé ko ci kaw ñoom ñoo ko tàccu ñoom ci seen bopp ba après mhm. ñoo ñooy wax seen nit ñi toog leen taxaw leen bàyyi leen yuuxoo yi bàyyi leen gis dañoo sax jaaree fa sax noppi slogan yi ñu doon yëkkati justice nangam nangam yooyu sax ñi jiite woon noonu ñoo leen doon wax noonu bàyyi leen noppi leen toog leen ba ñu commencé woon sax di bëgg a pour yaakaar ni xay na takk der yi. Mhm. nekkuñu fi pour charger leen nekkuñu pour fitna. donc mhm. gis nga vraiment parfois am na yu bari yoo xamante ni buñ ci àndee ak dal ak teey peut-être que lii yëpp mën na mujj ci jàmm rek. parce que mhm. xëy na ful psychologie ful foog nit ñi xam ko ful nit yi nekk ñëpp. mariirandoo daf cee bari. Hmm. de tous les côtés nag de les côtés alkaati aussi mu am ñoo xam ne nii xëy na euh, la ñu def bu ñu wéetee ñoom seen bopp seen jëmmi bopp duñu ko def léeg-léeg xëy na euh, seen tàngooru yaram mën na leen yóbboo yenn yi mais gis nga ko geste bu ndaw boobu dafa pacifier espace bi fii yuuxu slogan sax amatul wóor na yàlla bi mu ko defee te mu ngi bàyyi yeneen soldats yi ci ginnaaw moom ñëw bi muy ñëw gars yi dañu foogoon ni dafay ñëw sax pour euh, ne leen dégagé leen wala dinañ leen chargé wala yooyu ñoom ñu commencé di ko bëgg a défier. juste rek pour dire ne loolu mën di gis communication da ci am am solo. cest à ah, ak manière bi ngay communiquer lu mu ci mën di doon mais li ma jàng foofu mooy communication bi dafa dafa apaiser dafa apaiser maanaam euh, situation bi foofu. waaw ñun ñu ne moom ngay avancer. ma xooli euh, côté Sonko ndax ma ngay avancer Ablaye euh, Salif. waaw. Euh, ndax ko cortège Sonko bi mi ngi avancé foofu. waaw léegi nag oto bi nga xam ne moo nekkoon ci karam di oto bi journaliste yi yéegoon. Mhm. déplacé wu ne jël na yoonu corniche bi maa ngi jibi euh, jibi moo yore protocole bi jibi Ndiaye. non chef non waxal ak président yaa ngi ñu la ba seen liggéey la quoi. Ah, ah. dégg nga. mu ne. nee am na émission bu nekk foofu ce qui veut ne léegi ñoom dañ koy dugal ci wàllum euh, yoon xëy na léegi nag am na keneen koo xamante ni jàpp nañ ko keneen koo xamante ni jàpp nañ ko. Euh, di ko yéegal nii di ko mepp di ko di ko yóbbu euh, di ko yóbbu ci oto gendarmerie bi parce que dafa am gendarme yoo xamante ni tamit dañoo civilu nekkul na ñoom ñëpp a sol tenue waaw nekkul na ñëpp a sol tenue dafa am ñoo xamante ni dañoo civilu. non li ma comprendre mooy euh, li nga wax sànq nga ne dañ ci dañuy dugal lan ci wàllu yoon. non parce que Jibi Ndiaye ngi nii Jibi yaa ngi RFM en direct dañoo bëggoon nga leeralal ne. dañoo bëggoon. Ah. voilà léegi nag am na koo xamante ni dañ koo jàpp di ko yóbbu. Mhm. Euh, léegi nag kan moo ko jàpp léegi nag fi ñu toll nii loolooy coow li gendarme yi ni ma leen gisee ñu ngi ci di waaj a chargé xam nga sànq li ma leen expliqué mooy. Mhm. Euh, huissier Jibi Ndiaye nga xam ne moo bi léegi ba ñu ñëwee di ko laaj lan la ñu jéggoo dafa ne am na huissier bu ñu indi boo xamante ni day ñëw pour constater yëf yi gis nga ña ngay chargé dafa ñëw pour constater yëf yi. maanaam xëy na mooy. Euh, li retard beeg li ko indi seen cortège bi. Mhm. Euh, moo tax euh, ñoom ñu daal di daal di kii Jibi Ndiaye yaa ngi en direct ci RFM rajo Futurs Médias. situation bi on empêche le président de de de de se rendre au tri au tribunal ah. c'est ça parce qu'ils veulent coûte que coûte nous choisir un itinéraire que nous c'est pas inculpé ni arrêté donc c'est pas à le choisir un itinéraire. bañ bi a appelé un huissier il fait le constat. dégg nga dégg nga li ma bëgg xamoo xam ñoom fu ñu bëgg a jaar ak fan lañ leen bëgg a jaarloo. wala dem na waaw ñoom dafa daa am fu ñu bëgg a jaar am fu leen gars bëgg a forcer ñu jaar fa. waaw léegi ñoom nag foofu lu coow li bëri bëri yëpp am na benn cordon boo xamante ni dañoo wër oto Ousmane euh, am na ñoo xamante ni yoo yore am na ñoo xamante ni nag ay Eh, ñoo xamante ni taxul leen kii noonu waaye ñu ngi wër oto bi ñoom ñëpp wër ko ndombo. Mhm. oto Ousmane Sonko. bëgguñu kenn jege ko. Ah. ndaxte dañuy ragal xëy na sori bunt bi eh, mu ngoog. léegi daal eh, situation bi nag ba léegi ñu ngi nii ci rond point bi léegi nag sànq xeex bi mu nekkoon côté boo jegee ci rond point bi nga xamante ni mooy bi Mermoz bi nii jëm te nga xamante ni mooy avenue Cheikh Anta Diop bi mais léegi xeex bi daal tuxu. léegi mu ngi nekkee ci boo jógee ci rond-point bi jëm yooru Wakaam ndaxte xale yi bu ñu xeexee xeex ba ba si yàgg dañuy noppalu daal di tàmbaliwaat yaa ngi dégg noonu daal lacrymogène yi ak euh, kii ak euh, ñi nga xamante ni ñoom ñooy euh, xale yi Ousmane Sonko daal ci tënk ba léegi mu ngi taxaw dégg nga léegi Jibi Ndiaye en direct ci RFM nee na huissier la ñuy xaar mu ñëw constaté li fi xew su ko defee ñoom ñu daal di xool naka la ñuy doxalee waaye daal ba léegi ñoom oto bu nekkoon ci kanam cortège bi nee naa la sànq mu ngi fi nga xamante ni moom mooy corniche bi mais corniche ba euh, ba léegi oto bi mu fa jàkkaarloog mais oto Ousmane Sonko moo stop mais oto Ousmane Sonko bougé wul bougé wul benn yoon moom li ngi taxaw fi mu taxawoon rek jël position bu mu jëloon maanaam direction avenue Cheikh Anta Diop lool nag la gars yi nekk nii di lijjanti. Euh, di bu doon bu doon bu doon ci ay tegtal la xaw ma nag moom li mu def lu mu doon. waaw bu doon ci làmb ji la ñu ne ay tegtal la. Mhm. waaw lu leer nga wax. nga wax ay est-ce que du stratégie politique également parce que xam nga. bu fekkente ah. ne par exemple yow xam nga ne fii boo fa demee fa la sa mbooloo di yëppee. da bëgg a ah. jaar fa pour wane sa bopp est-ce du loolu également. waaw loolu mën na nekk mais man li ma ci jaaxal mooy université xam nga dafa dafa dafa ubbeekoo ne ubbeekoo nu xanaa peut-être li campus a jege avenue moo tax mais corniche mhm. bi aussi université dafa dem ba corniche bi mais foofu peut lu mu nekk ay affaire amphithéâtre rek yooyu mais xale yi Euh, avenue Cheikh Anta Diop bi moo tax ñoom bëgg ñëw mais bu awee Cobis ak bu awee fii yëpp dina romb fi nga xamante ni moom mooy euh, université gis nga léegi euh, gendarmerie yi ñëw nañ ci journaliste yi nee nañ leen nañu daje nañ daje benn place voilà quitté la chaussée wàcc leen tali tali boo xamante ni oto dawut nañ quitté rek. non moo gën a yomb nag. waaw nañ quitté. gis nga Salif ñaar yi boo ko déggee ci takk der. Uh-huh. jëfe ko bu la nee surculer nga circuler circuler dégager. Uh-huh. waaw parce que yoonu jàmm soriwul. waaw waaye nag termes yooyu moom war nañu ko wodd. mais xam nga ñoom nañ leen ko jàngalee la. Uh-huh. bu la yàlla yóbboon pates yi ba nga fekke fañ leen di former. day xam ne seeni terme la. mais jot ngaa def juróom benn weer tee bis bi ma njëkkee dégg baatub minable. metti na ma bëccëgu la mais après boo yàggee ci seen biir ngay xam ne seen baat la. voilà mhm. léegi léegi xoolal léegi ñu ngi utilisé oto Ousmane Sonko bi ah. Mhm. oto li wër oto bi. oto Ousmane bi nga doon wax oto Ousmane Sonko nekk sa kanam. ñu ngi leen koy yónnee ñu ngi leen yi léegi nag yi tamit ñu ngi koy jël di ko delloowaat ñi nga xamante euh, euh, bi daal. noonu la noonu la demee fii Mouhamed. mais finalement mujjul la mais ba léegi son commune ci biir oto bi hmm? lii moom jarul sax wax sax circulé léegi moom dañuy circulé ala kulli xaal léegi nag gendarme yi ñu ngi ne wër oto Ousmane dañuy dem ubbi oto bi nekk ko loolooy laaj bi est-ce que dañuy dem finalement ubbi parce que ñoom ñëpp gendarme yi ma ne gaare oto bi bu oto bi kat ñoom ñoo dem wër oto Ousmane Sonko voilà. gendarmerie yi instant yi ñoom ñoo wër oto Ousmane Sonko maa ngi seen nële euh, ñi nga xamante ni ñoo nekkee ca ca sécurité Ousmane Sonko bi xaaral ñu gën a jege ñu gën a jege pour mu gën a leer. léegi euh, Salif. waaw pour ñu leeral ko ñuy dégg oto sànq Sonko bi mu gaaree sànq moom élément sécurité yu Sonko yi ñoo wëroon oto bi. waaw ba mu yàgg gendarme yi gazé leen dóor leen ay lacrymogène ñu jóge fa ñoom gendarme yi ñu ñëw jël seen place wër oto Sonko. waaw gendarme yi ñu ngi ñuy wër oto Sonko léegi ba ñu gazé am na ay benn benn yu def. Mhm. ñoo xamante ni dawuñu. Mhm. mais ñooñu gendarme yi ñoom la ñu booleeg oto ba ñoom ñëpp wër. Mhm. léegi nag gis naa élément GIGN yi am na ñoo xamante ni dañoo ñëw wàcc dem woote ci beneen oto bi yaa ngi dégg noonu yëf yi. yaa ngi dégg noonu. même presse ñu ngi soo ko comprendre kon lan moo taxoon tànk yi def na ñëpp puus léegi ñu ngi nii ñoom ñëpp wër oto ki nga xamante ni moom mooy oto Ousmane Sonko euh, li ñu yaakaar li yaakaar mooy ne ñoom nekk ne dañ koo bëgg a jëlal seen bopp yóbbu ko seen bopp loolu loolu schéma boobu moom moo dessiné wu nii mais ba léegi ñu ngi xool parce que ñoom ñu ngi nii ñoom ñëpp gendarme yi takku ba dëgër wër li nga xamante ni moom mooy oto Ousmane Sonko mais Sonko ba léegi tamit wàccul ci oto bi. dañu suñuy bët may Sonko wàccut ci oto bi mu ngi ci oto bi ba léegi mu Ousmane Sonko chef protocole baa ngi ni ma leen mooy seen muy wax ak ki nga xamante ni moom moo yore sécurité euh, ki nga xamante ni moom mooy préfet ak ma bi nga xamante ni moo jiite opération yi fii xeex bi. ma doole la ci benn xibaar bu ndaw Salif. Mohamed waaw bisimilah. mooy 17 euh, femmes maanaam fukki jigéen ak juróom-ñaar yi ñu tegoon loxo. waaw ñu bokk ci parti Pastef baa bokk ci sympathisant yu Ousmane Sonko yi. tey jii la ñu leen waroon a war mais dañu nekk ci grève de la faim. ah tàmbali nañ grève de la faim de la faim mooy. léegi sept Linguère su ma déclaration bi dafa waxoon ne da leen ñaan. Uh-huh. ngir bu ko def. waaw commencé nañ ko nag. commencé nañ ko mu di information bu ñu jëlee ci kenn ci seen i avocat mm-hmm. léegi yeggaleel foofu. waaw jërëjëf kon nag ba léegi fi nii may wax. ñi nga xamante ni ñoom ñooy euh, gendarme yi ba léegi ñu ngi ñëw euh, ñu ngi wër oto Ousmane Sonko. parce que yaa ngi naan ndax duñu yegg ci ubbi bunt bi mepp ko yóbbu. laaj bi mooy ndax am nañ ci droit muy benn ñaareel ba mooy comme ñoo ñoo gàlloo euh, parce que am na foo xam ne bu fa Sonko tollee kaaraangeem ci ñoom lay aju effectivement bu fekkente ne ñoo gàlloo sécurité ñoo ko yore est-ce que du ñu am maanaam du ñu am prérogative bu def ko. bu ñu tollee fenn effectivement effectivement parce que sànq ñëw nañ ba waxtaan ak gars yi ba gars yi d'accord pour waa GIGN ubbil ko yóbbu ko. ba mhm. gars yi d'accord na waaw. léegi nag euh, fi ñu toll nii yooyu yëpp ay laaj la yoo mhm. xamante ni ñu si xam-xam màcc xaay na Euh, bu ngeen leen woowee dinañ parce que waa ji na ko sànq chef protocole nee Sonko c'est un ah. citoyen sénégalais. donc un citoyen sénégalais kaaraangeem maanaam force de l'ordre dañ ci am wàll. tey bu ñu demee ba yëf yu jaxasoo au sax mu dem wuy ji à l'heure dire dem tontu ci convocation ci waxtu wi ñu ko woo loolu moom faat na. mais tey bu ñu ah. demee ba ñu gis ne kaaraangeem maanaam xam na lu ci aw nar a gàll góose ba dalatul seenum xel est-ce que ñoom ñoom takk der yi yoon mayu leen ñu ñu taxaw ci kaaraangeeg Sonko en quoi faisant mooy ko fi mu nekk génne ko ci xat yooyu jël ko yóbbu waaw loolu loolu lépp ay prérogative la mais li wër daal mooy ne tamit xëy na bu dee nañ koo bëgg def tamit bëgg ñu koo def euh, ci loo xamante ni mun na am ay blessé wala ak yooyu. Mhm. parce que ba léegi aussi euh, ba ñu gazé oto bi am na ñu def ñoo xamante ni ñu ngi nii taxaw jàkkaarloo ko takk der yi mais takk der yi tamit euh, ñu ngi nii ñoom it takku ba ba dëgër ñoom ñëpp nag ci oto bi boo xam portail bi Ousmane Sonko féete. ñoom takk der yi tamit côté boobu lañ ñoo féete mais foofu boo gisee am na waajoo xamante ne boo xoolee di gis Ousmane Sonko di nga ko gis mu yor sécurité bi doon waaju xees am jëmm nii mhm. mu ngi taxaw ca buntu ba ànd ak beneen waay yoo xamante ni ci suba ba léegi moo toogoon ci kanamu oto ba ñoom ñëpp ngi nii ah daal di daal di taxaw daal di tëj wéeru ci buntu oto bi nga xamante ni mooy Ousmane Sonko gannaaw bi ñu ko gazee ñooy daw daw ñiy dese ñu nii eh, jàkkaarloog eh, ñi nga xamante ni ñoom ñooy gendarmerie gendarmerie nag ñoom ñu ngi déglu léegi nag am na ko yéegoon ci kanam oto bi wax na ba ba wàcc kii moom xaw ma ku mu tëjaat nañu buntu bi euh, tëjaat nañu buntu oto bi mais élément GIGN bi nga xam ne moo nekk ci oto bu ñuul bi moom moom moo jiitee yëf yi sànq ba léegi mu ngi dugg di di wax moom it euh, li nga xamante ni moom mooy téléphone xëy na day wax ak euh, supérieur yeeg yooyu ngir xool naka la yëf yi demee am na ku ma seen muy ñëw yore takk kaskam gaare motoom Euh, préfet mi ngi wax mhm. xaaral ma jéem a xool yi di wax. xaaral ma jéem. Salif en direct ci RFM euh, toppal ñu convoi bu Ousmane Sonko préfet mi ngi waxtaan ak gars yi Sonko yi ñu jéem a xool ba xam ne ana lu ñuy lijjanti.

dégg ngeen noonu préfet. waaw moo doon wax noonu. voilà léegi man la doon waxal parce que dafa am avocat boo xamante ni muy ñëw. nee nii lañ bëgg a jaar mais maître Khoureyssi Ba nee na ko ça c'est derrière nous xam naa daa tardé. Mhm. moom nag mu ngi nii di dem euh, xaaral ma ma ma jéem koo jege jéem a jël ay bâtiment. juste juste waaw ay. rajo Futurs Médias yow non mais ñun ce qu'on déplore Sonko Sonko est un citoyen comme il est convoqué par le juge il se rend à cette convocation euh, mais malheureusement il est bloqué ici il peut emprunter euh, euh, une voie qu'il a choisi le maître et le préfet vient l'obliger quand même à, emprunter la corniche lui il décide d'emprunter la voie euh, l'avenue mais c'est un citoyen comme il n'est ni condamné, il, a, il, est libre quand de choisir la voie qu'il veut. Si le préfet vient quand même euh, nous empêcher la, la euh, euh, empêcher le, le, monsieur Sonko d'emprunter la voie qu'il a suivie, je pense qu'il y a un problème. Non, nous avons déjà fait le constat des c'est tout, hein. Et nous en tirons, nous en tirons toutes les conséquences. C'est juste ça. na léegi ngay waxanteeg préfet préfet lànk ne non mais problème bi mooy Sonko dafa bëgg dem wuyu ci convocation depuis 9 heures lañ ko convoqué ci quitté na bureau këram di mois 9 heures moins 5 la ko quitté mais ñoom ñoo ko bloqué sur woon ñoom heure bi yegg na fi mu waroon dem mais dafa bëgg a jël la voie avenue Cheikh Anta Diop dem wuyu ji mais préfet ñëw bloqué ko donc ñun mënuñu topp ay ay ay ay ay lu mu tudd sax à à sur la voie publique. bloqué wuñu voie publique bi ñoom ñoo bloqué voie publique bi donc nañ ko bàyyi mu dem fi mu war a dem jaar xool fu ko neex mu jaar fa dem parce que c'est un citoyen libre quand même pas au Sénégal ay zones yi nga xam ne dañu ni fii nit de fa jaar fii kenn du fa jaar. donc leen mu nekkaan beneen charge. voilà non amul benn charge non non ñun ragaluñu loolu parce que ñu il est dans son ñoom ñoo ko bloqué deful dara. c'est la gendarmerie ñu bloque mi ngi doon dem euh, normalement mais actuellement c'est la gendarmerie ñoom ñoo ko bloqué nañu bàyyi seen yéen dañ ko convoqué à une heure à neuf heures kay mais que nañ ko bàyyi mu dem ba ba ba fu mu yegg mais mu bëgg a jaar ci Abonne Thiam ñu ne ko corniche ngay jaar mais moom il est libre de xool fu mu jaar wala fu mu jaar il n'est pas non loolu moom c'est loolu moom de façon ñun ñu moom il s'est lui de choisir voie bi ñuy emprunté moom il a décidé jaar Cheikh Anta Diop donc nañu nañ ko bàyyi librement moomu moomu jaar fu mu bëgg a jaar ba wuyi convocation bi c'est la ngeen ci jël comme dogal waaw mais daf nañu on a fait un constat je suis venu avec un huissier on a fait le constat pour wane ko su tardé comme si moom ñoom ñoo ko la réalité maître Babacar Ndiaye avocat mooy maître Babacar Ndiaye moo doon noonu maître Babacar benn ci juróom-ñaar dama lay wax ne la yéen. waaw 9h07 10 h ngi foofu ba 11h02 maanaam def ngeen fa waxtu ak lu teg. mooy ci rond point bi rek ci rond point boobu noonu waxtu la mu def def ko fa. waaw léegi ñu ngi jógee kër Sonko. kon heure la wax moom 9h moins 5. nee na waaw nee la fa jógee. ko balaa heure boobu noonu. waaw parce que bi may dégg nga yéen a ngi. départ daanaka ay ay 50. Mm-hmm, effectivement waaw léegi nag léegi nag ñu ngi ñu ngi ñu ngi puusar journaliste yi man comprendre ma luy problème problème mu journaliste yi man laa comprendre. lan lan moo xew. lu ñuy poussé waatee gendarme yi ah xanaa nag ñun duñu dañuy wax gazé xanaa duñu gazé. ah <laughs> ah te may seen de Bamba Kassé la seen mm-hmm. xam nga sànq ñu ngi naan am na koo xamante ni caméraman la DTV bu am blessure. waaw waaw ak OSTV euh, mm-hmm. ñu. ñu ñu déglu ko. bon tout le reste c'est pas mon problème. li ñu amal solo mooy que journaliste yi on nous a dit qu'il y a des grands blessés donc il fallait que ñu ñëw sur le terrain pour voir quels sont euh, les problèmes opérationnels qui font que il y a des journalistes qui ont été blessés ok donc bi ñu Mais nous, euh, je suis pour parler avec le préfet parce que c'est lui qui dirige les opérations. Ah, et il ne de l'ordre se tournent ok vers les vers les journalistes dégg nga léegi moom mi ngi interview force de l'ordre ba ñaqati na ko ci journaliste ya daal di koy yóbbu fee pour mu gisanteeg préfet moom Bamba Kassé donc yëf yi foofu la toll Mouhamed yaa ngi dégg léegi ba muy expliqué di wax li euh, ko li ko neexal lu ko naqari ci yëf yi. gendarme euh, gendarme bi daal di ñëw ci ndigalu préfet bu Ndakaaru daal di koy yóbbu. allo Mohamed. Salif. waaw ma ne Bamba Kassé yaa ngi koy maa ngi koy dégg mais daa mel ne. beneen beneen problème a ngi am parce que ñi newoon tribunal. waaw di fa góolu Sonko. waaw bàyyeekoon am na ci ñoom ñu bàyyeekoo tribunal ñu ngi noonu di romb ci corniche bi pour ñëw dabi dabi dabi conva Sonko. ñëw renfort. ñoom itam waaw waaw dana xaw a doy waar nag. waaw parce que mhm. xam nga fi ñu taxaw nii tamit. xam nga fi taxaw nii tamit soriwul daanaka ñoom fi ñuy bañ waa ji jaar. waaw waaw. waaw mm, te te fii. te te xam nga luy problème bi sax mooy man man. xam nga luy problème bi mooy. même bu bu fi waa ji jaarul mais gaa yi waa ji mën nañ faa jaar. waaw gaa yi waa ji jaar sax parce que ñoom bu ñu ñëwee ba IAM lañu njëkk a tas convoi bi jël la ci ëpp la ëpp ci àll ko ci lu xubar. Mhm. ñu ñëwaat ba ci rond-point bi tajaat convoi bi mais deuxième toj bi Sonko nee na moom xalaatu la jaar ci dul fu mu fi mu bëgg dégg nga léegi Babacar maître ci avocat bi nee nañu ñoom jël nañu huissier maanaam yëf yow ma ngi noonu kon dañ koy yóbbu ñoom ca ca yoon te nee nañu bëgguñu aussi ñu topp leen pour attroupement sur la voie publique. Mhm. mu doon leneen loo xamante ni mais mais xam nga également tamit. Euh, xam naa ñoom li takk de dañ ciy bañ mooy. Euh, avenue Cheikh Anta bi yoon la boo xamante ne ji ndax boo xoolee ay hôpitaux nga fa. université nga fa yeneen ak yeneen a ñaare buñ fa jaaree mbooloo daja fa mhm. imaginel nit koo xamante ne ji euh, jigéen juy matu war a dem soit à Bass Ndao wala hôpital fan wala fu mu ci mën di doon ngir accoucher. embouteillage am fa mbooloo daja fa ñu téye ko fa souffrance bi muy dund ci oto bi. wala keneen ku feebar xam nga conséquences également mhm. dafay bari xëy na ñoom yooyu la ñuy ba tax ba tax ñu bëgg mu teggi. waaw léegi léegi dem na waxaat ak préfet Mouhamed. Mhm. ñu ñu dem ko teewluwaat ba xam lu mu ko jëlee. ah ñu bañ a gaañu euh, ma information benn information bu jar bakkan d'accord vous faites votre travail. waaw Bamba Kassé bi nga joxe c'est des mesures élémentaires ci affaire yu mel nii déjà vous devez vous identifier visuellement à défaut vous devez toujours vous identifier auprès des forces de l'ordre et vous mettre derrière les forces de l'ordre parce que si vous mettez devant les forces de l'ordre au moment où ils vont charger ils vont charger la presse et parce qu'à ce moment-là ils pourront pas de distinction donc c'est ça je suis j'étais venu m'enquérir de la situation sur le terrain voir si mais vous laisse travail de façon correcte, mais surtout euh, m'inquiéter de la situation sanitaire parce qu'on m'a dit qu'il y a deux journalistes qui ont eu quelques blessures. D'accord D'ailleurs, je vais aller voir à l'hôpital le, de l'Estivie là, qui a été blessé. Donc, encore une fois, attention, ça, donnez-moi ce traité en tant que hein? Donc, le quoi pour ceux qui sont journalistes, vraiment, journalistes sur le terrain, il y a des vous êtes là, votre mission c'est d'informer, de rendre compte de ce qui se passe dans le pays. Donc personne ne peut dire, ne soyez pas, ne faites pas de live, ne faites pas ceci, ne faites pas cela. Ça, ça peut pas exister. Vous faites votre travail. Mais encore une fois, l'appel que je vous lance, c'est de vous occuper, de vous préoccuper également de votre sécurité. suñ si gars la gars yi dañuy naan yooyu benn semence daanu après on va nga Fapal ne moom la ñu waroon a ko jox la ñuy toog même si ñu nekkee ci seen yàq wala ñu nekk ci seen ginnaaw. gis nga man man man mii bëgg wax bi gis nga mu demee. waaw non dafa ndànk rek di gis nga ni mu demee donc ils sont dans une tâche d'opération du ma leen Salif. Salif liaison ak moom euh, dagg na Bamba Kassé secretaire général bu bu bu moom la moo nekkoon noonu en direct parce que ni mu ko waxee dafa dégg ne am nay journaliste ñaar yoo xam ne jëlee nañu ay ay ay ay blessure ay gaañu gaañu ci cow li am ba taxoon mu dem doon leen seet seeti abdu Diouf. waaw Mouhamed yow yaa ngi foofu tribunal waaw euh, yaa ngi dégg sànq Bamba Kassé muy muy muy muy wax ak euh, naataango yi. dégg naa ko dégg naa ko muy wax ak naataango yi mais euh, foofu noonu lu lu fa xew. waaw fii nag li fi xew mooy comme ni ma la waxoon sànq. Mhm. dafa am leneen lu ci juddu mooy soo ñëwee ba fii nga xam ne moom moo di rond point su ndaw ci nga xam ne mu ngi nekk rue de Reims engrais Dardanelles foofu dafa amaat rassemblement bu am doole boo xam ne moom moo fa am. comme ni ma la ko waxee Xol di ma baal dañ ne ma Ablaye. si pàcc nekk ci ligne bi en urgence Abdoulaye. waaw fii de sànq bi ma la waxee alkaati bi bu mu defee loolu. Mhm. mbooloo mi dañu yaakaaroon ni kon euh, jógu cortège bi jot na. Mhm. mbooloo mi mam mais gis nga ñaari voies yëpp la ñu jël beneen bi à contresens bien entendu moom it am fii accident bu métti boo xam ne am na xale bu jigéen boo xam ne tëraayam daal euh, amuñu ci moom njort bu rafet. vraiment parce qu'elle est restée inanimée longue minute te xam nga fii moom secours ak yooyu wallu sax amu fii quoi di am yëkkat jagat jagat nañ ko daal dugal taxi yóbbu mais vraiment ni mu inanimé noonu ah bu ci yàlla deful jàmm te scooter moo ko fel hmm. bi nit ñi màmmee rek scooter yi ku nekk ak xelu bakkan xam nga yii sax baax na comme ñoom ñëpp ñu ngi déglu rajo même bu ñuy dem jarul xel xelu bakkan comme scooter yi ci cortège bi lañ nekk mel na ni élève la parce que saagam la yor ak i kayam te loolu xam nga lu tiis la ci lu mel nii. jigéen la. waaw jigéen la. Euh, du mag euh, adolescente la rek. mais vraiment ni mu ko mbëkkee scooter bi sax moom defe naa ni demul parce que mënatul dem sax ni mu ni mu lemoo mais ma mbëkk bu metti la bu metti te loolu li ko waral mooy. Mhm. bësam ñett rek bëgg a vitesse bëgg di klaxonné ak yooyu te mën na ñàkk ci foo xam ne ni mbooloo moo fa nekk ba pare scooter bi voie contre sens la jël. maanaam ñi nga xam ne dañuy remonter di dem Wakaam sens bi ñuy jël oto yi direction boobu scooter bi ñëwee foofu xam nga ci koy doxi soxlaam di traversé mu yenu ko loolu vraiment lu tiit leneen li mooy c'est vrai que defe naa ne ñi ngay wax ñoo jóge foofu ci tribunal mhm. scooter yi moom yàq ci nañ parce que li fi màmmandoo ci ay scooter xam naa ni ñoo jiitu borom tànk yi léeg-léeg ñu gis nag borom tànk yeeg waaxu yi c'est de défilé ñu ngi ñëw nag gis nga circulation bi. Mhm. ak li nga ci doon dégg yëpp. c'était pas c'était pas bloqué maanaam oto wakkaan bi jógee Cheikh Anta Diop di dem jusqu'à présent ñu ngi doon romb normal mu ngi tàmbali nag di bloqué ñuy dugg ay fenêtre Mermoz waaye nag damaa xamul foofu bu ñu fa duggee ba ci IAM ba fan la ñuy jaar pour romb xëy na ñoom xamuñu lu xew ci circul ci ci côté bi foofu mais gëm naa ni bu ñu jógee Mermoz boo moytuwul VDN ba rek la ñuy mën a fële pour wiiri parce que léegi traversée bi mu ngi commencé jafe mais ba li nga ci doon dégg ba sànq circulation ci traversée rond bi amul woon problème ci car yi nga xam ne ni ñooy car de transport euh, euh, voyageurs yi doon dem. mais est-ce que fi mu nekk nii saafara nekkul di jur jàngoro bu ñu téye Ousmane Sonko bañal ko yoon wi mu war a bëgg a jaar bëgg ko jaarale fi ñu bëgg mu jaar fa alors que gars yi ñu ngi commencé di xatal yoon yi est-ce que liñ ci doon daw du du du ci mujj am finalement. yëpp xëy na. am na loo xam ne mënoon na koo jiitu daal ci wuyu ji tey xëy na loolu bon su amoon peut-être que euh, xëy na mënoon nañoo teel a xool sax laaj ko fu muy jaar ci ni danañ ko sécuriser ci secret ci bu mu bañ a doon mobilisation bu rëy bii mais aussi xam nga moment ñu la ñu dul jàngee ci lii du fi bees mm-hmm. ñu koy fàttaliku Idrissa def na ko fi président Macky Sall nañ ko fi mboboor topp ko xam nga donc defi lu bees kàngamu politique Khalifa Sall ba ngeen ko woowee mais ba muy woowee ji mais ñu ngi koy fàttaliku mais kan moo sañoon a xalaat ne Ousmane Sonko dinañ ko woo tey te mbooloo du ko gunge xam nga loolu ku ko xalaatoon def mel ni yaa ngi fawee sa xel donc loolu bu ñu anticiper wul woon xool peut-être waxtaan sax gis nga xeetu waxtaan yi am démb ci ay leader politique dem ay leader société dem seet Ousmane Sonko gëm naa ne préfet Dakar sax mënoon naa jël ci bexey boppam ne ko ah ñun dey jàmm ji la ñuy wut boo boo ko boo boo su la soobee pour ñu sécuriser de façon boo xam ne c'est pas ostentatoire boo xam ne nii du fës mën nañu ko nga wóolu ma nag wax ma fooy jaar mën na ko wóolu ko mën na ko bañ a wóolu parce que mën na mën na da koy coytu ba nga xam pour ñu indi ko gis nga Ousmane ko ci waxam yëpp wóoluwul kenn. Mm-hmm. parce que moom moo waxal ba continuer moom xam na ni fexe bu lay dinañ ko ko defal. budul kujee politique yi administration nee na wóoluwul kenn xay na préfet bu demoon def loolu du ko wóolu du ko wax fu muy jaar mais ba lay euh, au moins li ñu koy waxee jaanam dana wàcc bu boobaa mais tey li mu def nii préfet li mu def nii c'est-à-dire avocats bëgg nañ ko cee yeey parce que ki ñu woo moo la wuyu ji wax dëgg fa yàlla <laughs> bu jamono di dox dans les conditions normales de température et de pression comme ni ñu koy waxee yaay tànn fa ngay jaar maintenant c'est vrai tànn ba aussi am na yenn yoo xam ne boo ko xalaatee da ne ah tànn bii day tànn bi buy jur buy buy indi complication la ku ne sañ naa xalaat ni ak contexte bi nii jaar bu buntu université yooyu bon mun na indi attroupement mun na indi yeneen mun na aussi mobiliser mais est-ce que mën ngaa reprocher un leader mu bëgg wane dooleem ci buy wuy ji tribunal ci loo xam ne nii aussi peut-être spontanément la nit ñi ñëw wuyu si ko donc yooyu yëpp moo ci nekk mais lu ci lu ñu mënoon a sànq la d'autant que du fi guléet xam nga bu ñu amee expérience mu am fi ama fi amati ban leader politique mais leader politique bu bu bu bu dayoom yëngu ci Ousmane Sonko te soo ko woowee ay militant ñoo taxaw effectivement donc waroon nañ cee jànge maa ngi ciy waxtaan léegi ak Salif euh, Cheikh Tidiane Diagne mi ngi may baaxee benn communiqué bu bàyyeekoo ci Ousmane Sonko boo xam ne je pense bi mu ko defee léegi ay cinq minutes ci lay toll ma voiture est bloquée depuis plus d'une heure par la gendarmerie commandée par le préfet de Dakar ce préfet a été surpris en train de dire qu'ils vont décerner un mandat d'amener pour me cueillir de force personne n'a le droit de me choisir un itinéraire j'ai fait constater par huissier et en conséquence je suis un citoyen libre de mes mouvements je prends à témoin l'opinion nationale et internationale pour ces graves violations des euh, de nos droits donc euh, communiqué la boo xamante ne ji euh, Ousmane Sonko moo ko publier sànq ci page Facebook am di wax yëf yi fi mu toll mu di nee na daanaka lu mat waxtoo ngi nii wala lu jege waxtu gendarmerie bloqué convoi am otom la ñu bloqué nee na préfet bu Ndakaaru moom mooy commandé loolu nee na bett nañu muy wax ne dañu koy jox décerner mandat d'amener maanaam jël ko yóbbu fa la force euh, muy xam le nag ne moom Ousmane Sonko que ni euh, am na droit bu ñu ko woloo mu jaar yoon boo ko neex ngir wuy ji mu ngi jël euh, askan wi ngir daal ñu bàyyi xel li xew ci ne ñi ngi salfaañe ak xam ak yelleefam loolu mooy li ñu li ñu mën a jukkee ci communiqué bi jugee ci Ousmane Sonko mu publier ko ci page Facebook am nee nañu sànq la Abdoulaye may ma ma dem xooli Abdou Diouf Junior moom laa dagg sànq ngir accident boobu nga ñu doon wax am foofee ca Euh, fan di benn xale bu jigéen boo xam ne ci scooter yi bëgg a topp Ousmane Sonko def ci am kenn ko vitesse ba mbëkk ko ba moom jamono ji ma nga yóbbu l'hôpital fan la mujj xamaguñu ko Abdou Diouf Junior waaw eh, ca baal ma sànq dama laa dagg jàngi woon ci ci ci ci ci yenn information yu ñu doon baaxee waaw lii Ablaye doon wax am na solo ñu xam ko mhm. ñu bàyyi ci xel bu baax a baax ndax lu mat a bàyyee xel la suñu réew mi demee ba toll fii xam ni am na ñoo xam ne itam dañuy doxi seen soxla seen yoon nekku ci ñu war a def